naa ni nii la sama yëf di mel nii la sama yëf di mel mais ñu gën a dal rek sa sama yëf moom nii la mën a mel mee ñu gën a dal rek Sénégal yëpp a ngi biir cosaan nan dal rek nan dal awa gay ak eh eh eh wàññi leen coow li laay la ay ci ami téléspectateur <laughs> ci ngoon ba tey ay programme ngi am kenn débordé wul sama yëf la ñuy xaar rek pour déborder ñoom jaw madoo ak Awa Gaye 16h la ñu def Amina Poté moo def léegi ba pare dem kenn débordé wul mais sama yëpp xam ngeen ni ay débordement dina am ngeen baal ma rek waa Sénégal maa ngi leen di baal wàq di leen baal di kontaan ci téléspectateurs yi ñuy seetaan internautes yeeg ñëpp rek di bëgg ci yéen encore une fois espécial ndaw nañ la ñu wax ci téléspectateurs yi nga xam ni ñoo ñuy seetaan ñu war a ànd ak yéen chaque cinq minutes ma jël benn téléspectateur et puis man dama ciy def lu gën a neex mooy damay dugg ci. page Facebook bi xool benn internet tamit daal di koy am lu ma ko envoyé man xam nga yu kenn dul def yooyu laa def donc mën ngeen a woote ci numéro yi affiché ci seen suufu écran wala ngeen ou bien ngeen ngeen dem euh, kii rek yéen dem leen kii rek yéen def leenu leen neex wàññi cooli rek ñu wàññi ko rek commencé nañ spécial Dakar ne dort plus ci biir cosaan en direct sur la TFM ayca ma ni woo leen ma avant may jël benn invité wala ñuy dem ci programme bi avant may wax ki ma sañseel

ñu commencé émission bi bu ñëpp dégloo ñu commencé jël invité yi bu ñëpp dégloo ñu nuyu téléspectateurs yi ak internautes yi nga xam ni ñu ngi toog ci seen i kër du ñu seetaan te du ñu bàyyi xel bu baax a baax di kontaan encore une fois di ànd ak yéen wax naa ni tey ñu ne yéen ba 5 heures du matin invité yi nga xam ni moom la ñu am artistes yi nga xam ni ñoo nekk ci wàllu musique bi ak artistes yi nga xam ni ñooy def la comédie ñoom ñëpp la ñu boole am am leen ci spécial Dakar ne dort plus foog naa ni. li duuf la ñuy wax li duuf ci nag wi yëpp du ci cin waaye tey dinañ ko xaj xajal nañ fexe def lépp ci cin li xam naa temps du am li ma sol ci basin si jasneer ñoom ma ko jox Ousmane si di ko nuyu di nuy ay soxnaam may mun a ak nga xam ni moom mooy Mbaye ak Ale di soxna un ak soxna deux si jasneer am na ci HLM si jasneer am na ca ville ca ponti waaye si jasneer am na ci si Plaza xeeti ay mbasin yu baax xeeti jasneer yu baax a baax moom la ñuy def ginnaaw bu ñu ma ko joxee nag ba noppi dama ko yóbbu ci cinq précise moom la ñu dénk maa di nday soo sekk maa ngi lay kontaane moo bokk ak Didi bokk ak Yaafaatu bokk ak Anta ak téer yi nga xam ne ñoo fay ñaw waaye bokk ak ki nga xam ni moom mooy yaxa maa ngi leen di kontaane bu baax a baax baax waa Darou Moussi cinq précise nga xam ni tarkal la monsieur ak ak ki nga xam moom lay denc ah di ki nga xam ni mooy soda ak ki nga xam ni moo <laughs> mooy <laughs> ah, ah, toogal rek wala toogal rek toogal ñu seere ko dina neex no toogal lu tax yaakaar naa ànd yaakaar naa ànd yaa ngi fan ci almadi li xew almadi yëpp of mbay tey di ma ko wan ma wan ko téléspectateur yi laa la illallah of xale yu baax boo leen gisee ci almadi ga koor gi jeex na jëlal seen numéro of mbay boo demee almadi gis fa ay xale yu baax koor gi jeex na jëlal seen numéro boo ñëwee jox ma ma woo comme ni ma def Sukayna comme ni ma def Sukayna comme ni ma def Kia noonu laa def xale yi di leen jël di leen yónni ci mbedd yi xale yu jonga ma nga jël jox ma ma leen yónni ci mbedd yi tabarkàlla ayca woote leen gaaw ma xool kan laay njëkk a may balaa may dugg ci programme bi 88 676 05 05 88 676 06 06 88 676 07 07 88 628 22 22 88 628 20 20 88 628 65 65 ma njëkk a jël benn téléspectateur may ko ay teraanga balaa may dugg ci li nga xam ni moom mooy programme bi ñan ñoo fi nekk ay bongomaan cam eh, laay laa xëy la laa gis naa sa bëla tarkala yaa ngi noonu toog ci ginnaaw waaye sa doom day ngi nii toog gis naa ko mu sañ sa bees ñii tey problème dina am fii ci Dakar ne dort plus xam nga lu tax parce que dafa am ñaar ñoo xam ni. man damay réer ci kan moo ci le président des ma xam nga coow li ci réew mi dañ ko war a lijjanti te buñ ma ko mayee bu dee may nañ ma ko am naa gars yi dañ naan Aba dafa seytaane bëgg na te indeeti ay coow bu dee may nañ ma ko damay jël kenn ki teg ko nii jël kenn ki teg ko nii ñu dem référendum laa <laughs> ilaaha illallah eh eh ana ñi ko bëgg laa laaj ana ñi ko bëgg ana ñi ko bëgg ana ñi ko fii ne fii dëgër na <laughs> yàlla jàmm yàgg ay léegi-léegi fii dina xumb dina dagan wax naa ni artistes acteurs yi nga xam ni ñoo àndoon ak ñoom di gunge ak ñun ci weeru koor gi yëpp dinañ leen jël sant leen ñu gërëm leen bu baax a baax ñoom tamit ñu baalu àq waa réew mi baaloon teg ñoom àq parce que yaakaar naa ni bu ñu wetee wala ñu woor ba ngoon bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo ñuy wéetali heure dog ñu ànd ak ñun di ñu reetaanloo yenn saay sax bu ñu wooree ba benn heure bi dañuy dem ci YouTube bi di seetaan seen ay video ñu ñuy euh, fàttaloo koor gi ñoom la ñu dàqi koor gi ak ñoom ba weeru koor gi jeex donc dinañ ñëw toog fii laataa ñuy dem ci ambiance ñu waxtaan ak artistes yi nga xam ni euh, suñu directeur artistique dina ma indil artistes yi nga xam ne ñoo ngi fi yëpp gis nga nag Balla artistes yi bu dee dañoo bari da ngay jël par ñett ak par ñeent ko defee ñuy bokk micro bi ñuy waxtaan ak ñoom balaa ambianceurs yi di ñëw ñu dem ci artistes yi bu ñu amee ay éléments yoo xam ni tamit dafa am yi nga xam ni moom mooy ca Dakar ne dort pas ñu daal di koy jël ñoom i tamit waaye yaakaar naa ni animatrice yi nga xam ne ñoom i tamit damay ànd ak ñoom ci année bi yëpp ñu dem ci mbedd yi di dem ci boîte yi di dem ci xumbal yi ak ki euh, xale yu baax yooyu nga xam ni tarkal la man damay bëgg heure bu may toog rek ñu nekk sama wet su kay am prise ak pour muy leer ah ak ki nga xam ne mooy kia tarkal la bëgg naa ñoom i tamit ci kanam ñu ñëw ci plateau bi léegi fistet ana lom da nga programme bi fan lay commencé animatrice yi laay njëkk a jël wala acteurs yeeg les comédiens laay njëkk a jël bu ko defee ñu commencé de wuy eh, Khadija dafe eh, amatina naa problème koor gi jeex na Khadija ñëwati na règlement yi commencé ti na Abba tu en retard même boo ñëwee heure Abba tu es en retard vraiment tu en retard <laughs> te moom day prononcé ba pare moom day pronose ba pare émission yi muy def yëpp am ambiance ah di kontaan bu baax ci équipe QG nga xam ne ñoom tamit gunge nañ ñu ci weeru koor gi ba mu jeex ci bopp bi ah alaaji Bouba Ndour ak ki nga xam ne mooy Pape Cheikh ah nami ami mon grand frère ñoom itamit gunge nañ ñu un mois ci weeru koor gi ak ci ay ah, plateau yu am solo euh, ci ay euh, yoo xam ni ñu waxtaanee ko ah, lu jëm ci actualité réew mi lu jëm ci culture général lu jëm ci politique lu jëm ci diine lépp Pape Cheikh Diallo teg ko man nee naa ci réew mi li mu mën moom rek moo ko mën 4 de temps 5 nga toog ko di waxtaan. doo juum doo gàkk macha allah loo wax doo ci awaat yal na yàlla sàmmul ñu Pape Cheikh Diallo ah, yàgg mu yàgg a toog ci place am ba QG ren am na solo lool Papa Cissé moom tamit ñu ngi koy kontaanee plateau yi bu yànjee ba téléspectateurs yi di yëg seen bopp ci émission yi c'est grâce à Pape Cissé SVA moom itamit ñu ngi koy béggee bu baax muy grand boo xam ni euh, il a un grand cœur il veut donner il sait comment on donne xam na tamit ñan la ñu war a jox. moom itamit tamit Papa Cissé ñu ngi koy kontaanee ak xale yi nga xam ne ñoom la àndal ñëpp ñoom Eva ak ñoom ñëpp Papa Jean yow i tamit ñu ngi lay bëggee ñoom Yacine Pouy ah xale yi nga xam ne ñoo nekk ci digital bi yëpp ak seen ki nga xam ne mooy seen njiit ah Koulibaly ah, moom nga xam ni kar kenn du moom mag yi ah sama bambara bi ah man ak moom deret la lu bokk deret léegi dañuy demal programme bi nànk par nànk ani animatrice yi damay njëkk a jël benn animatrice ana Kia Kia bu ko defee wala non non Kia xaar leen xaar leen na animatrice yi xaar ana Diop Diop kaay indil ma artistes yi na animatrice yi xaar Diop indil ma artistes yi man ak yéen ba 4 heures du matin jël leen seen temps ambiance bi laay mujjee soirée laa fi def maa ngi fi gis ñoom Sidaat Boobo maa ngi fi gis ñoom El Hadj Keita maa ngi fi gis ñoom Jeeba maa ngi fi gis ñoom Ousseyn ak groupam maa ngi fi gis ñoom Viéña ak groupam yaakaar naa ni maa ngi fi gis gis naa fi ñu bari de ñëpp rek dama mënta lim rek parce que am na ñoo xam ne fañ nekk daa sori maa ngi seen ñànku maa ngi seen njool toj-toj maa ngi seen général Kayre laaj gunge ngeen ñu ci weeru koor gi ànd ngeen ak ñun ci weeru koor gi wax naa ne ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yéen. yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan mën ngeen a dugg ci léegi-léegi ñu gaaw xool 88 676 05 05 88 676 06 06 88 676 07 07 88 628 20 20 88 628 22 22 88 628 65 65 balaa ñuy jël suñu première invité euh, bëgg naa am koo xam dama koy may sama yaram bu tàngee 100000 ndëwanal spécial Dakar ne dort plus euh, li nga xam ni moom mooy euh, ci biir weeru koor gi spécial Korité ak Dakar ne dort plus Diop maa ngi lay kontaane bu baax. mais maa ngi lay nuyu Aba maa ngi lay ziar bu baax di la baalu àq di baal àq di di la baal àq di baalu àq aussi téléspectateurs yëpp di kontaan bu baax a baax. alors numéro bi ngay mayee laa bëgg nga joxaan ma ko ma jéem a woote fii en direct xool. yow kay fi ñu toll ni mënoo toog ci plateau bi bañ lay may. Euh, li nga mën rek mooy nga présenté ñu artistes yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ginnaaw boo nuyoo ba noppi bëgg nga lu yomb trop ginnaaw boo nuyoo ba noppi euh, présenté ñu artistes yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñu war a ànd ak ñoom laataa ñuy dem ci ambianceurs yi ñoom itamit daal di waxtaan ak ñoom mais bu doon maa yow comme artistes yi du benn du ñaar du ñett mm. euh, bu ñuy ñëwandoo da xool par groupe rek mm. ñu ñëwandee ko ñoom ñi àndandoo noonu ñu ñëwee noonu mm. pour ñu mën a avancer dama lay la koy paquetage <laughs> paquetage bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu woowee tey artistes yi fii defe naa ni mérite la tey ci Sénégal yëpp artistes Sénégal yëpp ñëw fii parce que gunge nañu ci weeru koor gi donc ils ont été à la hauteur de nos attentes wéttali nañu koor gi méttiwul benn yoon ci ñun ah, jàppale nañu ci côté yëpp ci fànn yëpp tubaarikàlla wàcce stress yi donc moo tax tey ñu tànn ci ab pàcc rek ni leen kaay leen ñëpp nag bëggoon nañ ñëw waaye ñenn ñi amuñu temps ñenn ñi amuñu jot ñeneen ñi ngi ci yeneen i activité waaye damay commencer par présenter koo xamante ni il nous vient de Saint-Louis mm-hmm. donc Ndiol Euh, moom kenn du moom ci mim réew la mu marqué aussi son époque depuis bu yàgg ba tey ji defe naa ni njool euh, bu fekkee yemb na na ñëw ci plateau bi ñu waxtaan bu nu noppee ak njool ma ndil la ñaar may la plateau bi. ayca kon bu la neexee rek bu dee euh, mu ngi fi moom. njool toj toj mm-hmm. bu ko defee mu yegg si ñu waxtaan ak moom dinañ dugg ci waxtaanu programme koor gi mm-hmm. waxtaan ak li xew ci koor geeg nan ñuy wéttaleeg initiative yooyu tamit bëggoon nañoo xam fan la jógee ci weeru koor ñu war def ay sketch yoo xam ni bu ñu ndogoo ba noppi mm. dañuy gunge nit ñi et puis ci jour koor xam nga li ma gën a metti dafa bokk ci euh, man ak moom ñoo nduróo même tissu ñu même waaw mais nduróo tombal yi non non mais tomb tombal yi am ci tissu même tissu ñoo ko nduróole lii bokk na ci li ma gën a metti ci plateau bi mais bu ko defee euh, nañ ko bàyyi mu waxtaan moom est-ce que takkal nañ ko amul micro anam micro bi anam micro bi s'il vous plaît <laughs> indil ma ko indil ma ko fii indil ma micro bu leen bàyyi kenn di ñëw ci plateau bi waaye bàyyi ah dee leen ko waa kay waaw kay ayca ayca jox ko te jox ko micro am ayca njool ñu ngi lay kontaane sa caméra wi nii ñu bàyyi la nga nuyoo teg euh, téléspectateurs yi waaw tout d'abord asalaamaaleykum Abba mm-hmm. maa ngi lay baalu àq lay baal euh, di di la bal àq. di nuyu Balla Diop mi nga xam ne amul effet secondaire. waaye tamit di nuyu ki nga xamante ni liggéey bi daanaka lépp ci loxoom la tegu. muy xaaj. njaga damagul màkk ah. damagul màkk xaaj retiré kon njaga kase ñu ngi koy ziar sunu directeur bu màgg boobu. waaye maa ngi seen sama papa Alioune Mbaye Nder. Mhm, mhm. mi nga xamante ni wax dëgg ne xel la. Nder booy. li gars yi tonton Nder booy. waaw wallaay ndeysaan. <laughs> Euh, booy. ñay bu xàll yoon rek. Uh-huh. doom yaa tax. tey mm. fu min la ñëw. macha allah rabbi di sama mbokk mm-hmm. artistes yi. Mm-hmm. waaye xam naa ne tey damay nuyu waa Ndar. Mm-hmm. ñoom laay jagleel guddi gi. ndax i tamit euh, tey fu nu mën a yegg rek ñoom la. di nuyu suñuy fans di gërëm ñëpp. di balwaat ak ñëpp di bal ñëpp ak. mais lu artiste di yëg ci weeru koor. Euh, hmm. ni ñëpp woor ñëpp sonn moom mu woor. Hmm. di def ay sketch yoo xam ni dafay bëgg sénégalais yi di békk maam loolu euh, lan mooy lan mooy motivation artiste bi. ak hmm. après lan la ci am moom lan la yëg. waa xam nga tout d'abord ñun li ñuy def euh, daanaka boo ci jiitalee am-am rek. doo ci sore. waaye boo xoolee bis mu nekk li may faral di wax. nee naa leen agresseur bi bu yewoo suba yéeneem bu njëkk mooy fexe ba tiital nit nangu mm. alalam waaw am na si ñoo xam seen liggéey mooy fexe ba nax nit ki nangu alalam mm. waaye artiste bi yéeneem toujours mooy fexe di béggal nit ki te mm. loolu amul àpp te am naa yaakaar ni wax dëgg ne xel la jaamu yàlla gënu te rëy di béggal doomi aadama ak am yéene bi en tout cas mais sëy euh, on constate que weeru koor ba weeru koor ci ngay gis série yi am benn déclic série yi yéeg ci kaw donc hmm. kawe donc c'est quoi le secret ci ba ba ñu choisir le temps de weeru koor je pense loolu c'est important ñu ñu waaw amaana xëy na moom nañ ciy gën a seetlu parce que boo xoolee weeru koor daanaka ñu bëree bëri day gëna a wu ci tele yi hmm. Hmm. daanaka ñu am yenn activité yu bëree bëri ndax xam naa ne xiif gee kay war a amaana xëy na waaye boo seetloo itamit nee naa la jaamu yàlla la maanaam jaamu yàlla la boo xamante ni dafa kawe ngay bégal doomi aadama donc loolu amul àpp ci bu dee weeru koor ak bu du weeru koor amaana xëy na ñi ko ñi ko xàlloon mu nekk lu rafet nit ñi di leen ci gërëm ak di leen ci sant tax na tey ji mu motiver ñu baree bare dugg ci mm-hmm. léegi say dinañu bëgg nga wax ñu say projet mais avant ñuy avancer euh, bëgg naa ma sant bu baax di gërëm sama directeur parce que tey ku xam plateau bi xam ni plateau ambiance la tey bu ñu ne Dakar ne plus ñu ngi xaar maan xaar musicien dem ci soirée ak yooyu mu ne ma abaa balaa ñuy def dara dañuy jël homme de culture yi maanaam comédiens yi nga xam ni ñoo ànd ak ñun ci weeru koor gi yëpp mhm. et puis mu nekk initiative boo xam ni bu am solo la moom mu ngi ci culture xam nga tey Ndiaga Ndour miin nañ ko miin goo xam ni parfois day def yoo xam ni ñun duñ ci bàyyi xel te yii ay acte la yoo xam ne dañ ci war a taxaw bàyyi ci xel tey les comédiens yëpp ànd ak ñun mhm. ñu teg leen ci plateau war a waxtaan ak ñoom balaa ñuy dem ci ambianceurs yi vraiment loolu c'est saluer di koy sant di ko gërëm bu baax man nag du ko tàmm di sant mm-hmm. waaye bu defee lu baax moom dama koy wax waaye xamul tax parce que booy dégg Ndiaga Ndour tey boo nekkee ci biti mm. di dégg Ndiaga Ndour da ngay jàpp ni bala ngay yegg si moom di nga jot ñetti secrétaire <laughs> dina la fouillé di nga jot eh, eh, maanaam ay sécurité ay rendez-vous dina la fouillé ay rendez-vous waaye moom rek ngay jot waaye moom rek ngay ma heureusement ou malheureusement ah. mm. waaye boo ñëwee da koy fekk ci liggéey bi moom mm. moom da ngay ñëw fekk ci fiil yi ngay laaj ci ana njaga ñun la ma nga nee jonkan sëgg ci fil hmm. daanaka dafa dem bu mujj gi dafa addik ci liggéey man loolu laa ko fonkee eh, eh, te nit eh, fekk waaw sëy la preuve hmm. bëri na ci ñuy dégg turu directeur waaw heure bii ñu ngi seen kër dëgg la moom lan lay dégg ma ngi fii <laughs> américain la yor maanaam tey ji boo bëggee gis américain sénégalais hmm. xoolal njaga parce que tout le temps il est au travail te it bu ñu waxantee dëgg rek naan maanaam nit boo nekkee un leader da nga war a fekk nga nekk toujours ci liggéey bi. Mm. waxuma ko ndax Abba li mu toog. Mm-hmm. parce que ku dee yàgg sa bàmmeel. mais moom euh, maanaam jot na ñu rendre ko hommage. Mm-hmm. parce que li tax mooy dafa bari ay artistes yoo xamante ni tey jii xalal na leen yoon. bu nu mm. mënal seen bopp. Mm. di dimbali seen waa kër. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Mm. donc hommage rek du rek ñun fii Sénégal dañu tàmm ku ñuy defal hommage mooy ku génn àdduna waaye hommage war nañ ko defal nit ki ci bi muy dund reconnaître que ba nga xamante ni dana ko booster mm. gën ko yokk courage parce que liggéey bi ñuy def yombul mm-hmm. maanaam da ngay verser cent jot un li ci ëpp kon yow ñu lay wax bon courage di ko di ko wax suñu bopp itamit ndax boobaak léegi ñun tamit ñu ngi ci di encourage suñu bopp di encourage ñi ci nekk bu baax a baax a baax ay projet bokk na ci sa ay projet fii Sénégal boo waxee sa projet ñu jël ko place yaa ko wëlbati ko liggéey la nga yàqu yaxet après nga dem toog <laughs> dëddale la ak sa projet ba pare jël projet bi tuddee ko beneen tur <laughs> après ñu dëddale la projet ba yow dootoo ko tal aw ma projet xalaatuma projet déw ma bay wut waaj a wut projet. booy yàlla yàlla yokk jàmm nag keneen ñëw ci kàttanu yàlla baax abaa ah, merci beaucoup yàlla yàlla fay la ah. toogal toogal sëy bokk na ci say projet war a am soxna quand même di xaar loolu ñu ngi koy xaar parce que dañoo ñawlu. ay yére yére yu bari. te dañuy xaar nga nga nga am soxna euh, pour ñu mën koo pour ñu mën ko pour ñu mën ko sol. waaw loolu na dinaa ci waxtaan ak sama papa Alioune Mbaye ndeer waaw <laughs> Balla dañu lay bàyyi euh, yow ak sa invité foog naa ni lu ma ci wax loolu laay invité yi bu nu ñëwee faaw ñu koy euh, faaw ñu def loo xam loolu la ñuy wax ci wolof euh, faaw ñu tënk donc Diop dama lay bàyyi booy ñëw mm. nga may indi invité mm. Kia mm. laay dénk sama papa Alioune Mbaye Nder mu indil ma ko donc Kia moom may indil sama papa Alioune Mbaye Nder donc bu ko defee euh, Diop nga ànd ak sa invité. Mm. booy ñëwaat indi ma invité Diop dimbali ma. bu may ñëw dama lay indil ñaar jërëjëf ma delloo la plateau jërëjëf. loolu baax maa ngi lay kontaan yàlla guddal sa micro. jërëjëf wala nga bàyyi ma ko fii. jërëjëf ba tey yaa xool rek ayca <laughs> yàlla sa jàmm yàgg yàlla sa jàmm yàgg. ayca kontaan ci téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan wax naa ni téléspectateur ak internaute laay boole tey di leen jox ay teranga téléspectateur

avant may jël ki nga xam ni moom mooy tonton Boy Nder bu fekkee am na ku ne ci ligne bi rek mën ngeen maa dog à tout moment rek su may wax ngeen dog ma waaw à su may wax mën ngeen ma dog rek bu dee am na ku ne ci bi internautes yi faaw ma leen di ñamal vingt cinq mille vingt cinq mille foog naa euh, ñu ngi ñuy seetaan depuis suñu page euh, Facebook euh, TFM yaakaar naa ni ñoom Khadim Ndiaye ñu ngi ci page Facebook bi ñoom Uray bu dabaax maalik mu ngi ci page Facebook bi ñoom Cheikh Ndiaye ñu ngi ci page Facebook bi ñoom Isco Junior Diop ñoom itamit euh, ñu ngi ci page Facebook bi euh, foog naa ni bu ñuy ñëw rek euh, bu ñuy ñëw ñoom ñëpp ma taral leen kii kaay kaay avant tonton papa grand boy Nder bi ñëw nga ñëw ñu waxtaan nga baalu àq nuyonte ak téléspectateurs yi yow xaw ma li nga sol nii kan moo ko ñëw waaye bu dee da nga koo fay na nga ko dolli bu dee def laa habillé ne la boo demee ci télé bi nga sant ma gërëm ma nga joxe numéro am numéro papaam ak numéro yaayam kii sañsel na la. ñëpp ak euh, di wax nañu ñëpp baalu euh, baal ak di kontaan trop ci partage waat plateau bi nga xam ne moom mooy Dakar na dort plus ak ki nga xam ne moom mooy Abba mm. ah, te contentement la ñu am saa su ne di liggéey ba at jot wala ñu liggéey ba korité ñëw dañuy def rek lu dul di baalu téléspectateurs yi parce que wax yombul mm-hmm. mënuñu wax lu ëpp baa ñu wax loo xam ne waruñu ko wax kon nag li ñu war a def rek mooy dañuy jéggalu ñi nga xam ne moom mooy ñi toog dañu seetaan yaa togg laax bi yaa togg soos yi yaa togg ginaar yi wala noo jullee tey. non tey nag togg ma dañ maa toggal. <laughs> damay wax dëgg. <laughs> ay ci salaamaaleykum euh, boo amee kilifa mu ñëw ci plateau bi da ngay jug bu defee saafoonteeg moom ba noppi yi nga féete ci man yëpp dafa bari. suñu papa nga suñu mag nga suñu idole nga waaye danga boole ceeg nekk suñu goro. Ah, dëgg la yàlla yàlla defal la jàmm. <laughs> amiin amiin bienvenue. Ah, mu xëccal la. ah ah xëccal la mbubb bi. Ah. <laughs> voilà seeram moo tàng. léegi léegi dama laaj balaa ngay nuyoo damay laaj maak Malick kan moo gën a sañse. Euh, du ma ko mën a wax parce que gis gisuma ko tey. bu weex la sol. téléphone bu weex. waaw kon moo gën a. <laughs> ay ca tonton Boy Nder ma bàyyi la ak téléspectateurs yi nga nuyoonte ak ñoom sa caméra ngi ma waaw euh, asalaamaaleykum adduna asalaamaaleykum Sénégal maa ngi nuyu adduna euh, bi yëpp di ci jiital kilifa diine yi euh, suñu xalif général sëñ Babacar Sy Mansour ak sëñ Mountakha Mbacké ak kilifa diine yi nekk ci Sénégal yëpp vraiment maa ngi leen di nuyu di rafetlu. Euh, ñëw bi ma ñëw fii ci cosaan sama kër comme tu as dit tout à waaw fu ma miin foo xam ne nag vraiment macha allah kontaan naa ci teewaay bi ma teew euh, di war a waxtaan ak yow ak Kia kontaan naa trop vraiment. ay tontoo tey Boy Nder artist bi naka lay dundee weeru koor da koy toog di woor wala day dem studio wala day bind naka la artiste bi di dundee koor. waaw ah, ça dépend ci artiste bi ban artiste ngay wax man wala. waaw yow yow mi toog fii yow mi ah, la comédie ah. <laughs> ok non non bon parfois nag mu xaw a difficile parce que xam nga su fekkee ne da nga da nga woor ba euh, ndogu jot. Mhm. doo ci teg lu dul benn heure maanaam vingt une heures pile war na la fekk studio. Mhm. Euh, day xaw a compliqué. te diggante ndogu ak naafila ak dem studio euh, ba pare war a xëdd parfois on quitte le studio vers cinq heures du matin. Mhm. donc ay presque. 15 20 minutes ngay am pour mën a xëdd euh, mais lépp rek pour mën a bégal askan wi comme d'habitude comme boo dee liggéey ci euh, réew mu mel ni Sénégal euh, yàlla dogal mu nattu la nga am benn public bu exigeant ngay préparer production boo xam ni que xam nga ni ci ñu mu jëm am nañu fuñ la teg donc tu n'as pas droit à l'erreur donc da nga koy defee ci anam yi nga ko war a defee moo waral bii yoon moom vraiment affaire yi metti woon na mais sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax parce que liggéey nañ ko ci anam bi ñu ko war a liggéeyee yàlla def yàlla dogal na sotti na ba euh, clip bi sax génn na démb euh, mais album bi pare mais dafa mel ni yow kon dañuy mujj mujjee xam yow nooy dundee sa koor dafa mel ni koor gi da nga ko bind danga ko dugg studio da nga ko préparé son bu bees boo xam ni moom moo génn waaw euh, album album album album la ñu préparé boo xamee ni que dañuy préparé suma 30 ans mhm. de carrière incha allah te xam nga loolu nag dafa yombul mhm. parce que euh, jël nañu mat ay vingt cinq trente morceaux yoo xam ne que euh, vraiment ak suma génération ak ñi nga xamante ne bii dab dabaatal nañ ma parce que yàlla dafa dogal moo bokk ci artistes si nga xam ni am nañu chance vivre ak quatre génération mooy suma mag yi ñi ma maaseel ñi nga xam ni maa leen mag samay rak ak samay doom mm-hmm. donc mu mel ni que loolu yëpp boo ko boolee dafay nekk benn diis benn sas bu xaw a diis ci man parce que bu ñuy xool Sénégal ak di xool euh, atmosphère euh, musicale bi da ngay gis ni que am na wàll wàllu bari woo xamante ni yàlla dogal na mu joué ko ci ci yenn génération yi ba tax na mooy sas bi nga xam ne que tey jii yàlla teg na ma ko euh, ba lu ñu génn rek il faut ñu xool naka la ñu koy tege ci anam boo xam ne que tey jii suñu rakk yi wala suñu doom yi suñu koy déglu nañu am repère. ki nga xam naa ne yaa ngi bëgg laaj waaye dimbali ma rek nga may ma parce que ñii ay monument lañ yoo xam boo leen amee balaa ngeen ni amati euh, day yàgg ñu profité rek euh, tey mën nañu xaar ay son yoo xam ni amoon na fi ay temps nekkoon ay it comme ay nettali comme euh, sant yàlla comme son yooyu nga xam ni man ba tey samay animé parce que fi may yóbbu ak fi activité réew mi toll ak actualité bi yooyu son mën nañu xaar mu ñëwaat oui bien sûr parce que xam nga 30 ans de carrière c'est pas c'est pas deux jours bon répertoire la boo xam ne que yàlla dogal na ñu am ci ay ay morceaux yoo xam ni que vivre nañ ko vraiment ak sénégalais yi ak benn génération boo xam ni que tey jii ils sont devenus nostalgiques mm-hmm. ba am na ci morceaux yu bari yoo xamante ne bii fu ñàkk cof nañ fa rek cof ci bii cof ci bii cof ci bii cof ci bii presque une vingtaine de morceaux yoo xam ni que ku ci nekk am na nañ yaakaar ni di nga ci gis sa bopp mos yu bees yi parce que am na ay mos yu bees mais xam nga pour pour wax 30 ans de carrière Alioune Mbaye Nder donc mënuloo ko def te doo ci boole yenn mos yi nga xamante ni dafay rappeler nit ñi li nga xamante ni bii Nder liggéey na ko pendant 30 ans et je pense que boobu ak léegi yàlla dimbali nañu euh, population sénégalaise bi gunge nañu ci anam boo xam ne que am nañu yaakaar ne bu génnee ah aba ah, barke Mbaye Seck dina am maanaam. mais loolu ci son bi loolu ci son la loolu ci album la mais clip. bu ñu koy waxtaanee est-ce que mën nañoo xaar euh, tonton booy euh, euh, Nder mu defaat ay chemise def mbaxane boo xam ne fecc bi day sumi mbaxane bi dóor ko ci ko dàll bi loolu mën nañu ko xaraat ndox du bàyyi yoonam ah. <laughs> ndox mu ta bàyyi yoonam ah waaw dafa am benn waykat bu tudd Alioune Mbaye Nder xam nga lu mu wax mhm. nga fekk ndox ci sa yoonu tool bëgg ko toxal mhm. di yàq sa ëllëer ak sa yoonu tool te ndox du toxal mhm. waaw waxi wolof la donc am na solo dañu lay bàyyi nga wax sa mot de la fin sans faute ak ñoom euh, balaa ngay dem yegg ci plateau bële. sama problème mooy an sama clip bu bees mu leen yónnee. moom la ñuy teg léegi. mu ngeen teg mais da ngay dem fee playback ko dañ koy teg mais nga koy playback tamit. ah bon ah. est ce que nit ñi nañu am jotu seetaan ko. dañ koy seetaan ba pare kon ko teg ba pare. nga soog ko playback nga soog ko playback. ayce voilà. waa Régis. waaw noonu laa ko bëgg clip gi nee na ñu teg clip bi ñu seetaan ko ba pare. waaw toog a dem fee mu playback balaa ñuy jël beneen invité li nga bëgg loolu la ñuy def fii ci kër ayca <laughs> El Hadj Malick naa ni mu nekk lu am solo euh, yaakaar naa ni actualité réew mi moom la ñu indil daal ñu koy wayal li nga xam ni moom moo xew ci réew mi moom la indi daal di koy way foog naa ni lii ku ci nekk mën nga cee gis sa bopp ku ci nekk mën nga cee yëg sa bopp lii la olof Njaay naan way bu diglewul yeetewul nekkatul way ay naxaate la foog naa ni Alioune Mbaye euh, bu wayee li nga xam ni mooy na rafet mooy euh, na aw yoon na objectif way ko ci positiver foog naa ne ku ci nekk war nga cee mën a bàyyi xel bu baax a baax a baax muy lu mujjee gën ci yow. waaw muy lancé album bi. bi. Mhm. Mhm. mooy li ñuy wax donc euh, man li ma bëgg rek ci Sénégal mooy il faut positiver. mu rafet. Mhm. Ah, te maa ngi interpellé euh, parti au pouvoir di interpellé. Euh, opposition bi. di mhm. interpeller société civile. Mhm. Mhm. di interpeller. di interpeller euh, population bi yëpp. parce que lu ñëpp bokk foog ñu boolu ci ñëpp. te Sénégal ñu ñoo ko moom xamuñu feneen gisuñu feneen xamuñu leneen lu nar a yàqu bu kenn seetaan ñun ñëpp defar parce que loolu moom moo ñu war donc moo waral morceau bi génn euh, pour contribuer encore ci peewu réew mi. président moom benn. stabilité boo xam ni que maa ngi koy ñaan yàlla di ko ñaan acteur yëpp parce que vraiment loolu laa gis ñun dañu am responsabilité bu rëy ci àdduna bi am ko surtout ci Sénégal donc durant suñu carrière yëpp essayé nañu contribuer lu mu tuuti tuuti ci développement réew mi ci suñu manière et je pense que maa ngi am yaakaar ni euh, album bi bu génnee nit nañ ci am euh, euh, mbégte en attendant ñëpp enjoy clip bi incha allah positive bu ngeen demee ci YouTube bi rek chaîne YouTube bi Prince Art di ngeen ko am incha allah. koy euh, xaar euh, ñoom téléspectateurs yi. ak euh, auditeurs yi waaye man comme ambassadeur laa boo xam ni damay jox ci jàmm ak euh, ci loo xam ni jàmm ak salaam ak ambiance rek la na ci réew mi xam naa ni son bi moom sama son lay nekk di ngeen ko déglu ci dëggantaan di ngeen ko seetaan ci seetu Sénégal ci weekend sat lépp rek loo xam ni maa ngi ci budul dara euh, sunu baay la waaye budul dara tarkalla day ndaanaan loo xam ni xale yi dañ koo bëgg mag ñi bëgg ko et muy jàllale ay message yu am fort ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax Abba Show. ayca la amal jàmm mais ki ma am ni euh, Soukay emprise yaa ngi am jàmm. maa ngi sant bu waa Pikine. waa Pikine ñu ngi fa di ana maire bi. mi ngi fa yaa <laughs> ngi ci jàmm. bu baax. téléspectateur yi ngi lay déglu. waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna. maa ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp di wax ñëpp di wérati leen baal leen ma àq baal naa leen yal nañu yàlla boole jéggal di ñaan yàlla def jàmm Sénégal def jàmm ci monde entier bi yëpp di bëggee ñëpp di ziar ñëpp ziar naa la Ablaye. am na solo maa ngi lay delloo ziar di xaar téléspectateur bu dugg ci sama numéro yi nga xam ni mu ngi affiché sama suufu écran rek pour mën a waxtaan ak euh, ñoom ci euh, li nga xam ni euh, moom mooy nu ñu jullee ah, fan la ñu jullee tarkal la rek daal di dem ci li nga xam ni moom mooy sa poche foog naa ni euh, fi ñu toll nii na nga ma koy tegal foofu euh, tegal ma ko foofu bàyyi ma ko foofu nga xam ni mën naa waxtaan ak moom foofu rek après ambiance ak moom foofu waaw waaw waaw waaw loolu moo ma gënal ou bien su ko neexee mu ñëw fii ñu waxtaan soog ambiance yaay xool rek Ousseyn yow xool rek noo ko sentiré rek ayca bu amee téléspectateur bu ne ci ligne bi nañu ma ko jox 88 676 05 05 88 676 06 06 88 676 07 07 wala 88 628 20 20 88 628 22 22 88 628 65 65 bu leen neexee ñu dem ambiance tuuti ak euh, Ouzin Mbaye ma waxtaan ak moom wala Ouzin nga ñëw ñu waxtaan une minute rek ma bàyyi waat la nga wàcc ñu dem ñu ambiance Ouzin Mbaye ngi ñëw damay dem indi théâtre indi musique indi bongo indi ambiance indi théâtre indi bongo ñi laay dexal ba cinq heures du matin maa ngi yéen ba 5 heures du matin internet yi may seetaan ñoom itamit mën nañu yëg seen bopp ci yëf bi Ousseyn maa ngi lay kontaane di kontaane Pape Laxadoun di kontaane équipe bi nga xam ne ñoom nga àndal ñëpp yàlla sa jàmm yàgg noo def. mais Aba ginnaaw ba mu santee yàlla. julli ci Seydina Muhammad sangu sangu yëpp. di ñaanal samay ñaari waajur fa nu jëm fii nu jóge fa nu jëm yàlla na leen gënal képp kuñ fa fekk képp ku leen fa fekk di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanale xalif généraux yépp laayan tiijaan xaadar canaba canaba ba ci sunu mbokk chrétien yi mhm. seen abe jama ko yàlla na fi yàgg te wér di gërëm sama patron man benn patron laa am TFM Abe Dabako la abaa nag man daf may ree rek ah, di gërëm sama patron Njaga sama xarit nga ni yaa ngi sant kan ci chrétien yi Abe Dabako <laughs> eh, aja di gërëm nag sama nawle yi fi toog mm-hmm. tey tu as fait un très grand histoire mm-hmm. bàyyi leen jàmbur bi waaye mu la tu as invité mm-hmm. les plus grands bongoman du monde. Mmh. Je dis pas du Sénégal. Mm-hmm. Parce que l'art, c'est une vieille tradition ludique. Il est au bout du jour. fii ma toog miin naa ko. Mm-hmm. foo naa fi ñëwaat fi ñëwaat fi waaye nag tey da ngaa sama xarit. Mm-hmm. Vieux Niang. ku am fulla ku am fayda. ku am personnalité. ku arrière lul aar da koo avancé damaa toog ci korite gi vie ñaan na ma Ousseyn Mbaye allo ma ne ko naam mu ne ma dama laa jëndal ay ginaar. barke alxuraan. man vingt neuf jours laa woor. Mhm. barke démb laa woorul. bi ñu naan it la. bi ñu naan it la kenn warul woor rek laa woorul. dëgg la billaahi wallaahi mhm. boo xoolee sama jë xam ne waxtu du ma raw. dëgg la. du ma waxal kenn lu mu deful. dëgg la dëgg la nit ñi xam nañ ne ci fit ak ful la moom. man man Ouzin Mbaye. le président de la république de toutes les bongoman. <laughs> Vieux di le roi des bongo. Cheikh Bongo di la caat des bongo man. kenn mënu ci lii dara du ma ngénte ko sinul man de maa ngi doon jéem a dugg seen diggante. doon ni nga séddalee nii. c'est toi le roi du bongo. kenn mënu ci dara. yow yaa effort plein à Dakar na door fili. ñii yaay. da nga jox fukki ginaar boole ci fanweeri junni jox ma 3 mètres bodor borode borode bii ma sol 5 yi lay jar. Ousseyn yaa ma ko jox lii ma sol. kon dama la koy waxal direct ñëpp ko dégg. Ousseyn Mbaye. waaw yow yaay lan ci bongomaani. le président de la république de toute. les bongoman du Sénégal foofu ngay yem fa ngay yem moom Vienya mooy lan ci bongoman yi. le roi du bongo de tout le monde. Cheikh mooy lan ci bongoman yi. le Thiat le plus talentueux le plus fit le plus jom le plus xamadi. de toutes les bongoman. léegi Ousseyn Mbaye euh, dama lay bàyyi nga dem fële mais doo fa gaaw a jóge après di nga fa taxawaat ma jël ñaari comédien ñett nga yeggali ba doyal woo vie comme mooy le roi yaay le président après vie ñëw ñu yeggaleeg moom li li nga xam ne moo des ci guddi gi kenn du yow yal na sa jàmm yàgg Ouzin non awal ne awal ne yow ah, tey fi ñu toll nii noo jullee foo jullee koy sant koy gërëm li nga sol ni kan moo ko ñëw gaaw balaa Ouzin di yegg fële. waaw Aba maa ngi jullee suñu kër. Mhm. yow comme xam nga lépp xam nga ne sa bàjjan mooy sama xarit. kenn du moom sama bàjjan. mënumaa dem bàyyi ko te Camara yi la koy nuyu. de mhm. passage Camara yi sama yaay ji di la ñaanal yàlla may la gudd fan ak wér ci barki yonent bi yow ak sama papa yëpp. waaw mi ngi noonu tey nag moom damaa doxantu rek ba ci la jeune mu génn ma ci rob bu jongoma bi waaw te xam nga ne man ma laalee rob rek dëgg neexul tubaarikaal la aja heure bii daaw la woon heure bii daaw yow fii nga defoon jongoma ren ñëwaat léegi damay xaar damay xaar ba fii ma benn bu ndaw la quand même lu xam nga ne man lëmbal taw ma kenn ana balla ñëwaatal indil ma ñaari comédien la temps di yëngal le temps Ousseyn Mbaye di yëngal plateau bële ci ambiance dañ ci ñëwaat yaay indi vie waaw yaay indi vie bu ñëwaatee ñu waxtaanee li nga sol ñu pelloo ku ko ñaw joxe numéro beeg yëpp ah maa ngi lay wax eh, wala avant Ousseyn Mbaye di ñëw est-ce que du ma dem Almadies xool Toch euh, ci lan la nekk ci mbedd mi Toch bu dee mu ngi ci mbedd mi nañ ma ko wan ma xool ci lu mu nekk ana of bay wan ma Toch ci mbedd mi ma xool naka la mbedd almadi yi mel ça c'est la télévision Futur Média ça c'est la télévision Futur Média yaakaar naa ni da ngeen koy am à show ñu wan leen almadi ni mu mel woor nañu weeru koor ambiance bi nga xam ni moo ne ci mbedd mi ngeen mën koy am li xew ci plateau bi ngeen mën koy am ay ambianceur ñëw ay théâtre kat ñëw ay waykat ñëw ñëpp ñëw ci li nga xam ni moom mooy euh, spécial Dakar ne dort plus fii ci nga xam ne mooy ci cosaan yaakaar naa ni Toch bu noppee rek ci mbedd mi dañuy dem ak ki nga xam ne mooy Ousseyn Mbaye le temps Toch di pare euh, ma ñëw ak moom xool nu mbedd almadi mel ku ngeen gis waaw waaw yéen ku ngeen gis ci mbedd mi rek tarkal la mu mel ni Kia wala ngeen gis ko ci mbedd mi tarkal la mu mel ni sukkay rek mën ngeen a jël indil ma ma mën di ko yónni moom tamit bu may demal ci fi nga xam ne moom mooy Dakar ne dort plus yow tamit téléspectateur bi seetaan balaa Ousseyn Mbaye naan der ngeen ñëw ci yaa 88 676 05 05 damaa bëgg def teranga 88 676 06 06 damaa bëgg ñoo xam dama leen di jox seen ndëwënal 88 676 07 07 damaa bëgg am ñoo xam ne su ma leen ko joxee suba dañuy koritewaat 88 628 20 20 88 628 22 22 88 628 65 65 nga ni allo enveloppe bu 100000 francs seen biir kër ma yëngal kër gi daal di koy jaxase ba mu jaxasoo xaaral ma dem Facebook. xool internautes yi nga xam ne ñoom itamit ñu ngi nekk foofu euh, di ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax Mohamed Ndaw envoyé na ma numéro bu yàgg Mohamed o feeling damay jékki-jékki rek xool numéro bi rek daal di am lu ma ci def ba du Anne yow tamit maa ngi lay béggee Alioune mbay ñoom Khadim Ndiaye ah, euh, François Tine ñëpp a ngi may envoyé seen numéro envoyé leen euh, mën naa ñëw ci Facebook bi rek xool benn numéro rek. daal di ci dugal vingt cinq mille francs donc bu ma leen bett woote ci numéro yi waaye dem leen xool ma fi nga xam ni moom mooy ci Facebook bi te xam ni damay def pile ou fas ñam fii ñam fële avant may dem ci Toch est-ce que du dem ambiance ak Ouzin léegi léegi ma ñëwaat nu yeggali. ki may bégal. am Siteu yow yaa ngi ci plateau bi dimbali ma rek may ma tos mu ngi ci euh, fi nga xam ne mooy ci mbedd almadi yi ma waxtaan ak moom laataa may ñëw ci yow fi nga ubbee ni baax na bul tegg sa loxo fi nga ko teg fi nga teg euh, sa baaraam foofu baax na fi nga wokk ni ñu koy wexee ci wolof foofu xasan tos ana foo nekk ak ci nekk ma mën la xool may demaat ci Ouzin Mbaye tos tos yaa ngi may dégg nga am ambiance bu commencé duma ko arrêté waat de tos yaa ngi may dégg ah ak ndaama la àndal ah tos ak ñu ngi nii fii ci monument de la renaissance ah fa maa ngi lay dégg bu baax maa ngi lay kontaane di wax ni nag ñoo ngi ci ci monument africaine di leen wax baal leen ñu àq bu baax a baax yàlla na yàlla boole baal abaa gis nañ sa sañ-sañ macha allah. ñu ngi fii ci monument de la renaissance xale yaa ngi nii. bari nañ fi lool ambiance baa ngi yaatu mais tey na dama ànd ak sama xarit sama doom yaay alaaji Ndaama Mbaay di ko ñaanal yàlla yàlla bu mu faxastalu ak noir fumé yi. mais mais xanaa da ngeen nekk ci ay ruq. da ngeen nekk dafa lëndëm. waa dama ne euh, tubaarikàlla tos. daanaka wax nga lépp. fii tey yaa ngi ñu gis. maa ngi leen di gis bu dee ñu leen gis. léegi tos. waaw mbooloo maa ngi nii. nañ leen laaj ku ne nan dundee korite bi. korite bi yegg si leen ak jàmm. da ngeen grand ñu ngi leen di nuyu. ñii dafa mel ni suñu mbokk suñu mbokk suñu mbokk waa Guinée lañ. yaakaar naa waa Guinée lañ. ah. ah Sénégal mais yow yow lan nga yow. Sénégal 100 pour cent. Ah, al ko. konoon alpulaar. Nombada. aɗon selli galle mawo de ay comme xaala pulaar falaa mën a yam fu korité bi toll ak nu ngeen dundee korité bi. ay ca tos. léegi yow nan nga dundee korité gi noo tos. maa ngi ñëwaat maa ngi ñëwaat ci léegi ci yéen léegi léegi euh, le temps ngeen di am fu leer wala dem fu leer tarkale fi ngeen nekk dafa lëndëm yéen a ngi mel ni ku nekk ci tunnel bi ngeen nekk dara ci seen sañseek lépp kenn mënu koo gis kee zone noire mel ni kuy dawal taxi ki weex mel ni ku sol lu ñuul maa ngi ñëwaat ci yéen léegi léegi Ousseyn Mbaye nañ ambiance. nga koo laaj jot nga koo xam si man ki may bégal kenn du koo laaj jot nga koo xam ki daan wax leen yéeri ngoone tey wax leen yéeri ngoone tey ne leen maa fi ñëwoon daaw ñëwaat fi yaakaar naa euh, fi ñu toll nii euh, faw ñu jouer avec le temps euh, parce que maa ngi fi seen ki nga xam ne mooy Pape Birahim maa ngi fi seen ñoom dem ba gisee yaakaar naa ni fi ñu toll nii Diop noo def rek nga dimbali ma ñu jouer avec le temps mën naa la bàyyi yow ak say invité ngeen waxtaan maa ngi ñëwaat léegi. bu ko defee kii. sama xarit la xam nga waa yëmbal waaye bañ ñu fees ci plateau bi daal fii bëri ñu ne plateau plateau yëmbal la xam nga ñun baal la yàlla daf ñu dimbali bëgg koog bañ ko nan ñu nangul ne yàlla daf ñoo dimbali. ci say gan a ngi nii. ci waaw ah. banlieue bi nga bëgg a teg. ah ah waaw li banlieue bi la. Diop yéen mooy taw nii ak asalem ak yi da ngeen ñuy xaar. temps bi temps bi. ayca temps bi doxalal voilà. léegi suñu ñaari invité ah ñoo xamante ni ils ont marqué aussi seen empreinte déjà fii ci biir euh, ci biir euh, Sénégal wane ko ci biir weeru koor gi ba mu mat sëkk la tey suñu suñu leen xoolee dootul ñu ñuy présenté xanaa ñu bàyyi leen rek ñu nuyoo ma commencé ci non ci doom ji laay commencé soog a dem ci papa ji ci doom ji ñànku maa ngi lay jaar. <laughs> bisimilah salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. waaleykum salaam. ñu ngi leen di nuyu. monsieur Balla Diop. way di nuyu waa SSP di nuyu waa TFM. di gërëm ñëpp. di nuyu waa àddina bi yëpp. waaw damay nuyoo damay continuer ak wax. non non da ngay nuyoo après nga continuer wax sa kër la kenn ku nekk maa ngi la fekk fa nga toog. di la jox sama loxo bu sell bi nan la asalaamaaleykum taala barakaatu. dèjà dañ lay wax baal ñu àq ah, baal nañ la yàlla boole ñu baal jaru ngay tontu. dootoo ko defati mën nañ continuer ah. ma ni baa doot li ngay baalu baa dootoo ko defati. raawul amul solo mën nañ continuer général général kayre di papay ñànku alors non non non non vas-y ah, général maa ngi lay nuyu. général Kairé maa ngi lay nuyu. Euh, Balla Diop maa ngi lay fay nuyoo di la jaajëfal. yow bu nuyoogum yow bu nuyoogum mën ngaa jug sama place fi mu toll kon wala wala kon. man xam naa nu may def. li li dem ah, kii su demee dañuy dem kii moo ñu dem man avant fekk yow <laughs> xam nga fi mooy dem fekk ñoom tosh après ma yeggali plateau bi ay maa ngi lay fay nuyoo bu baax a baax di la wax man ma nit fii ma ñëw sama kër la hmm. ndax olof moo ne ko la woon AOI bokk na suñu dàq dagg nga tax nga dagg bac d'office tey bu ñu xamee général Kéré grace à Abba no stress tey fu général di dox ñu naan ah, ah, général mi ngi ne Abba moo def loolu ginnaaw yàlla kon tey bu ma ñëwee si plateau am damaa ñëw sama kër dëgg la waaw di nuyu ñëpp nag di baalu àq ñëpp nag ñun ay tooñkat lan mm. te tooñkat moom foo toog rek da ngaa war a wax baal leen ma àq waaw tey tey duñu leen wax ni euh, lan moo nekkoon objectif bi wala lan moo nekkoon motivation wu ngeen def ay série ci ramadan beeg affaire yooyu mais lan ngeen ci jànkonteel loo xamante ni mën ngeen ko partager ak tey téléspectateurs yi te ñun gisuñu ko mu nekkoon ci ginnaaw caméra yi wala mu nekkoon lu ñu dagg au montage. waaw amuñu benn jafe-jafe <clears throat> ñun moom nice parce que xam nga mbéccee boo xam ni moom. délire moom mënu ci ñàkk. waaw loo xam ni pour ngeen tourner ko fa mu def de temps wala trois heures de temps bu nekkee bu weesoo añi naaje yi waaw añi weeru koor añi moom deret maam ñun suñ tournage ñun tourné wu ñu weeru koor ah, ñun dañuy tourné lépp avant koor parce que dañuy soxla lekk ak yooyu tu biir koor ga koor ga duñ ko fooye quand noonu la añuy naaje rek la ñuy am problème suñu waa loolu maa ngi koy jéggul artistes yëpp wax dëgg yàlla mais bu dee bu kii moom par exemple saa yu njëkk am benn scène boo xam ne dañ koy tourné di ko tourné waat di ko tourné duñ ko mën a gérer waaye duñ ko mën a gérer waaw duñ ko mën a muñ waaw am na mën a fàttali peut-être ah juste en quelques secondes waaw dal na ma ci mm-hmm. ci kooru gan yi mm-hmm. dal nañu ci eh, keroog bi ma naan mm, ah, kii moom bu mujj bi rek mooy ba ñànk ba ma naan ko dangaa ñàkk jom waaye boo deewee bu buñ la tegee si jaag bi dinaa ne ku ñàkk jom mi ngi nii <laughs> mu ne bu boobaa dina jóg daane malaaka yi damay teet daal <laughs> ko rafetal <laughs> yooyu maanaam yooyu dafay nekk yoo xam ne parce que ñun ay nit kese lañu nañuy reetaanloo nii ñi tamit noonu la ñuy noonu la ñuy bëggalee bopp te ñun ñooy njëkk waaw nice naturel quand même parce que affaire bi méttiwul yéen xam ngeen ni mu demee mm-hmm, mm-hmm. mais euh, bala di euh, profité ci occasion bi parce que li occasion bu mag la mm-hmm. ba yow Abba da nga ñoo invité te xamoo sax li tax nga invité ñu Ndiaga ñu ngi koy gërëm xam wax laaj ma la tax ñu gërëm ko c'est la première fois ay artistes di def weeru koor ba mu jeex ñu invité leen ñu ñëw toog sant ak gërëm ñi leen doon topp ci durant weeru koor bi yëpp mm-hmm. initiative bu extraordinaire mm-hmm. ñu ngi gërëm njaga bu baax di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm di gërëm abaa mm-hmm. wax dëgg yàlla di wax ñi nga xam ni sunu ay soppe lañu fépp fu ñu nekk maanaam ay tim topp ñànkook topp gédeek dukk rek ñooñu fu ñu nekk ñu topp ñu wax dëgg yàlla di jël seen connexion di ñu seetaan ci YouTube bi di ñu kar ci télé yi wax dëgg yàlla kontaan nañ ci ñoom trop waaye tey jii bésu tey jii gàtt na waaye du tee ma gërëm Abba daf maa defal lu ma kenn mësul defal. mooy taxaw ma ci grand théâtre mu nekk première édition. su ma ko gërëmoon feneen du safee damay bàyyi ba ñëw ba ci biir këram. Mm. tontu du farax dangay koy denc ba bés jot. Mm. nga gërëm ko si ñëpp ñu xam ni. abaa taxaw na ma taxawaay boo xam ne ci grand théâtre kenn mësuma koo taxaw hmm. yàlla na ko yàlla defal jàmm fay ko dama bëgg a wax li may wax après bàyyi dana la a ngi wax kay tëj waaw li kii may gërëm nag santal partenaire rek waaw ñëpp ñu sant nañ ko ñëpp partenaire xam nga doo fi nekk di lim wax xam nga télé jàmbur la tamit <laughs> sant nañ partenaire yeeg sponsor yi nga xam ne ñoo ci jàpp ak nit yi nga xam ne ay bonne volonté nga xam ne suñuy soppee kese lañ jël seen alal di ñu ko jox man damay ñaanal sénégalais yi ak ñi nekk ci diaspora bi aba yàlla loo ko ñaan mu may la maa ngi koy ñaan moom yàlla suñu borom. dimanche bii di ñëw. yàlla na xëy di taw ay yàpp yu baree baree baree baree bare ba ay midi muy taw ay soos billaahi yu saf sàppa kaani yaa dégg ngoor gi muy muy taw ay boisson maa maa ko ñaan yàlla mu ko ngir sénégalais waaw <laughs> xam nga ñànko daa am lu wax si Abba day jékki-jékki woo ma ne Aba defal nañu nangam ma message Aba ne ko kontaan nan de mu ne bul ma gërëmati ah. lii sama yëf la maax kon loolu da nga sant bu baax a baax moom ne nan lu mu ñàkkee karaw nii noonu la ñàkkee kiñaan mm. di nga wax ne nag baal la baal la mm. édition bu ñu defoon sam-sam 123 show bi maanaam xale judd na fi ba mën a demal boppam bitig ba ba jënd tàngal ba ñibbisi yaayam ne ko foo demoon mu ko bitig ba laa demoon jënd tàngal mm-hmm. kon yàgg na di yàgg na ah, deuxième édition mooy ñëw le treize général bi mu ko defee woon daa daanu woon mu <laughs> mm-hmm. programme bi programme aba la mm-hmm. aba moom moom programme bi nee naa poule A bi mooy aba no stress ñun ñooy géey ñun équipe aba soo ba pare dafi doogu géey maanaam bu buñ géewul sax ñoom ñoo xam ah waaw waaw dof ñoom mandikat yeeg. ñoom mais programme programme Abasso. mooy le treize mooy le treize mais incha allah Sam Sam Tali Karo. voilà te xoolal membre Abasso moo ko invité moo ko organisé parrain bi membre Abasso la. muy si loolu suñu yëf la Singo mooy parrain bi. très bien léegi beneen non non ñànk doo waxaat. nañ tàggoo ñii nañ tàggoo génn. non doo waxaat ñànk. pour li ngeen jox li ñuy jox pour parrain bi. dee réeroo am na man biñ ma woowee dañ may sargal wala du loolu. Ah. andi andi micro bi alors léegi. Euh, le treize incha allah. Ah. donc bu leen ko fàtte. ñëpp mm-hmm. nañu dem sam-sam. muy deuxième édition wala troisième. deuxième la deuxième édition. incha allah abaa am na aussi beneen festival boo xamante ne xam nga ñii ñu ngi lay gërëm boobu ba léegi. Mm-hmm. mais ñii dañ ko def waa APPA la. donc muy bonbon sucré. ànd ak waa tribunal ñëpp. Ah, waaw waaw ak ñoom aljuma ak ñoom tamit bu ñuy def. Mm-hmm. incha allah le 5 lay commencé ba le 7 mai. donc yow Aba wala parrainage bu ñuy waajal pour Aba wala ngërëm bu ñuy waajal ñoom defal nañ ko waa sam-sam defal nañ ñu ko donc festival yaa ngi noonu dat yaa ngi noonu Aba mën nga ma bàyyi ma dem ci tali bi fekk ñoom tos parce que dama bëgg xool kumpale loo ci mënti def daal loolu sa problème la en tout cas dañuy yeggali ambiance bi ak Ousseyn Mbaye euh, bu ko defee avant avant ñuy bàyyi Ousseyn Mbaye mu dem parce que am nañu Vienna daa war a ñëw am nañu ay ñuy way ñu bëri ñoo xam ne dañu fee nekk avant ñuy bàyyi Ousseyn Mbaye xam naa dina defaat ambiance tuuti rek le temps mu gërëm ñang production équipe bi production bi ñëpp ñoom Awoba Awoba ñoom Tëtëse ñoom Munaas ñoom Munaas ay Dukure ñëpp Dukure bi wa ak waa Sénégal bi suuf gars ay jàmbaar la ay projet yu bari la ñuy dajale def lépp dëgg la gërëm la ma leen ñoom ay ñoom saa neex ñoom waaw ñëpp rek ku lim bi waaw bëgguma ngay wax ci sew bëgguma wax ci sew mais dama bëggoon Ousseyn Mbaye demaat ci Pape Laxadu non loolu. ngir yàlla rek. Ousseyn Mbaye ambiance balaa ñu jël si ñeneen invité fii tey doxal mën ngeen a wàcc plateau bi wàcc leen. <laughs> jox ko micro bi. ayca mën ngaa wàcc dama jox ko micro bi. am am Ousseyn sa micro ayca bu ko defee mu ambiance et eh, ana Kia indil ma yeneen invité yi fii ñu avancé nank par nank ayca Ousseyn nañ dem. baax a baax sant nañu di gërëm Ousseyn lu bare bare indi ma micro bi bu ko defee ñu jox ko sidaat boobo foog naa ni euh, tey moom bisu ñam rek la euh, ku nekk rek na ñam jox sa morom baalu àq la saafonte mm, ziarante yaakaar naa ni loolu rek moo xaj ci plateau bi tey moom la ñuy waxtaane El maa ngi lay kontaane bu baax waaw salaamaaleykum Abba maa ngi kontaan ci sa invitation macha allah di nuyu Sidaat suma frère suma lépp macha allah Euh, di déwénati ñëpp di baal ak ñëpp di baalo ak ñëpp di ñaan yàlla sunu koor gi ñu jóge yal nañ ko suñu borom nangul barki borom Tuubaa. hélas euh, fi ñu toll nii un nga toog. waaw looy waajal. waaw fi mu ne nii kañ lenn rek la ñuy waajal muy lendemain korite incha allah ñu war a delloo Saraba incha allah ma ci woo waa Ndakaaru yëpp di ci woo waa Medina Fass Gueule Tapée Colobane en Gibraltar Fann Plateau. ndakaaru euh, daal laa woo bàyyiwuma banlieue bi tamit waa Guédiawaye ak waa Pikine ndax am nañ fa ay soppe waaw bu baax. xam nga du ma leen téye ci plateau lu yàgg parce que artiste bu ñëw rek ne la li ma def ci ay plateau dafa bari wala su ma jógee fii dafa am beneen plateau bu may dem mais euh, du ñàkk di nga ñu wax ñi bëgg seen ay billets bëgg ko am fan la ñuy mën a dem pour am li nga xam ni moom mooy seen ay billets. Euh, parce que yi ku ci bëgg da dem 605 wala nga def 77 525 07 35 wala 77 934 87. 65. ayca dañuy sol suñuy yëre olof bu subaa suñuy ñëw wala ku neex mën ngaa sol lu neex. loolu lu waay neex sol. parce que tey artistes yi dañu bari moo sax ma ne Abba li yëgal moo cof rek. dem parce que loo xam ni ah. mais faaw ñu play back quand même. waaw ayca waaw mënta ñàkk maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Euh, di kontaan ci invitation bi di wax ne maa ngi nuyu sama waa ji El Hadj Keita mhm. di nuyu képp ku ñuy seetaan rek di baalu ñëpp àq. di wax na ma ñëpp baal di ñaan yàlla jéggal ñu te nangul suñ nangul ñu suñu koor du nuyu sama xarit bi ma àndal muy Mourtala saaliw mystère sama menager du nuyu waa Kaolack di nuyu tamit Ahmed ah bokk defar Sénégal Ahmed ñaa sama xarit bi du nuy Ba Mor sàmb du nuyu képp kuy bëggee Sidath Bonbon maa ngi lay ziar di la déwénati ci koor gi korite gi. Sidath dafa mel ni dafa am son bu bees de bu génn. waaw waaw dama dama dama def son bu bees Aba. xam nga dama nekkoon ci sama concept album. Mhm. waaw dama ne nag naa ci coppati dara rek indi ko parce que boobu ba léegi tëju bi yàgg na gars yi ak may laajte waaye dama nekkoon sama ruq di liggéey rek bëgg a ñëw ak affaire yu doy waar maa ngi waajal sama album incha allah di wax ne nag dama cee génne benn single ñëw pour playback fii jox ko fans yi jox ko ñu téye. Uh-huh. dañuy bàyyi El Hadj mu dem bu ñu paree jël siraat bonbon. moom itamit euh, mu dem euh, ci playback bi le temps euh, El Hadj di yegg ci fële ca plateau ba la ca kaw seen ba donc dindil ma yooyu siège ñu teg foofu dindi ma siège yi moo moo moo dindi ma siège yi bu ko defee le temps El Hadj di yegg bay playback ñu waxtaan tuuti ak téléspectateurs yi ak internautes yi nga xam ni ñoom itamit ñu ngi ñuy bàyyi xel bu baax wax naa ni bëgg naa maye ligne bi moo seere ku nekk di woote bàyyi leen son bi mu dem. El Way bu ñëwee ci euh, seet booba mu way le temps ñuy installé Viegna jël yeneen i ndaanaan yeneen i invité ñu ngi euh, ñu ngi ci plateau bi avant El Hadj di way est-ce que du ngi dem seeti Toch euh, ci mbedd mi ok boy ok nañu woowante léegi nii nañu woowante léegi ñànku nañu woowante léegi nii ñànku mën ngaa ñibbi ñànku nañu woowante allo Toch foo nekk ak ci loo nekk <laughs> Toch Eh, wala leen bu kenn déglu ñànku li ñu maye nii yow taxul ñu may la ko téléspectateurs yeeg moom wala leen ma toog eh, fan la nekk ak ci lu mu nekk le temps may dem ci eh, El Hadj ñu dem ma xool toog ci mbedd mi toog ndaama toog ndaama wax leen ak man boog ñamaxit toos awma ma son de yéen rek laay déglu boo demee am na fu ñu laal de boo demee am na feneen fu ñu laal nañu dem ci El Hadj Keita euh, playback euh, te ñëwaat léegi daal di yeggali tos ak ndaama euh, ñu ngi nekk ci mbedd almay di def lu leen saf bàyyil son mu dem El Hadj way ñu ñëwaat léegi ci plateau bi ayca bi nga dëkkee xarit soo ko bàyyiwul di nga toog sa rukk di jooy kenn du la naax bi nga lu ko fi jar lekkatoo di naanatoo di wuti pexe ñoo lay tàgg tey xas sa suba ku nekk di xaar sa musiba nga wax nit dëkkam def la naan Somebody kontaane bu baax a baax a baax yaakaar naa ni maa ngi nii ci mbedd mi non non non nañu xaar nañu xaar nañu xaar nañu xaar tuuti yaakaar naa ni ñu ngi nii euh, ci mbedd mi la ñu nekk Toch ak Ñamaxit fan ngeen nekk allo Toch ak Ñamaxit fan ngeen nekk xale yu tëlaa yéen xale yu dëgër bopp ku xool Almadies ni mu mel tey ñu ngi lay dégg Fall ñu ngi lay dégg. ayca ayca ayca xam ni saison bi ibbi na rey. ñu ngi tanteeg suñu mboq bëloo mee neeg ñëpp ngi nii almadee ngi fees dell. est-ce que ñu tanteeg ku sañ sa nii ba ni booy. sëñ bi papi papi papi mbaa xam nga ne yaa ngi en direct sur la TFM yaa ngi en direct sur Dakar na dort pas ñu lay wax papi naka nga dundee korite gi ak naka nga dundee woon koor gi. waaw koor gi moom dund nañ ko si alhamdulilah si bisimilah rahmaani rahim génn si mm. alhamdulilah rabil alamin dëgg la waaw korite si jàmm ak salaam. waaw génn nag xool town bi nag ak samedi bi nii lu lu mu nar a joxe. lu mu nar a joxe <laughs> mbaa joxe. waaw mi ngi joxe moom pour l'instant. mu ngi bu baax a baax. ñu la nga sañse def sa yëre olof bëtt sa nopp lu waral lool. waaw gis nga de daf yëfu xale rek. Ah. ànd ak jamono rek. jeex na waaw ah, bilaay wala ànd ak sa doomu ndaay mu laal ay loxam. waaw sama doomu àndaa ba wax la kooku. mais mon ami. waaw macha allah ma doxal nga dundee korite tey gii côté bi de mbégte rek. mais bàyyi nga doon wóor. ñi ngi wóor macha allah barki Serigne Touba. ñaata koor ñaata fan ci wóor. koor bi lépp. barki Serigne Touba lépp lu ñu wóor te ñun ay Baye Fall lu ñu mooy loolu wóor moo ñu. bilaahi ñun moom ah. mais tey na nga dundee mbégte korite gi. korite gi de ah baalante ak. bàyyi lépp lu jàppoon lu bon. yow yow ko yow kan nga xam ne amal nga ko ak nga war koo baalu ak. munoo munoo xam ko ki ki nga ki nga def ki nga def ak nga def. baalul ñëpp ak tooñ rek ngay def tooñ rek ngay def. Touba non tas bu wax loolu <laughs> ñu lay bàyyi Fall ñu. ah jaajëf mais gars yi xoolal. jaajëf Fall. il faut ñu doon wala almadi kon bu ko defee. xam naa ni tey bu ñibbi. waaw mun naa ngeen bàyyi ma almadi. dañuy. mun naa ngeen bàyyi ma almadi. dañuy jéggi tali. dañuy jéggi tali. ñëw gis borom sañ-sañ yu yi di leen wax ni yéen a ngi en direct sur la TFM naka ngeen gisee korité bi yéen ngi nii en direct sur la TFM yéen a ngi nii en direct ak Dakar ne dort wax leen ak Aba No Stress en direct déwén ci sëñ bi. fekkeel déwén. bàle ñu àq yàlla boole baal amiin ñu ah, fekkee ay at at. jërëjëf. ñu lay wax nag naka nga dundee koor gi ak naka nga dundee korité gi ndax yaa ngi doon woor ñaata fan nga karmat yooyu noonu yëpp <laughs> ñaata yoon la la daal. ah daluñu de mais koor gi moom ça s'est très bien passé. Mhm. Ah, euh, température bi gis nga tamit euh, xam nga euh, dafa xawoon sedd noonu. sëñ bi xanaa mbokku ndar nga ñu gis ni ngay waxee. Ah. mu am taalibe lool. barke alxuraan ne tekk lool ni ngay yaru topp. fii yaa ngi ma jox yaa ngi ma jox Abdou Diouf de Seck. daalinaa <laughs> daalinaa woo ndeysaan. jërëjëf waxal la neex. waa koor gi ça s'est très bien passé. Mhm. dund nañ ko bu baax. ñoo dund nañ ko bu baax korité bi tamit ça s'est très bien passé julli bi alhamdulilah tout s'est très bien passé yàlla ko fekke ay ati at rek. jaama yàgg kon Aba mu ngi noonu Aba Almadi gi fees. noonu xool xale bi. mu boroode. Eh. xoolal ma xale ne sa boroode jarul mètre mille francs. taxaw wax Sénégal. eh ba nga taxaw. Sénégal. taxawal wax ak Sénégal. yaa ngi en direct sur la TFM yaa ngi jàkkaarloog Aba No Stress ah. sa borode lan la. lan la ak ah, kan moo la baal ñu àq. ma ni jàng sa sañ sa rafet. ayca mu ngi noonu donc booy ñu ngi ci mbedd mi eh, di yëngal mbedd mi li xew ci mbedd mi yëpp maa ngi koy baalu àq waa Sénégal maa ngi leen di baalu man rek damaa ëpp ci réew mi waxatuma la ak ñaar ñi nga xam ni fu ngeen ma gis da leen di gis et puis foo xam ne rek mënuma fa dem ñoom laa fay yónni ñu ngi ci mbedd mi di def lu leen saf fexe. ba li ngeen di def ci mbedd mi bu ngeen ko paree pare ngeen ñibbi seen kër yi ma li ngeen def ci mbedd mi noonu almadi bu ngeen ko paree ngeen ñibbi seen kër yi ay dañoo nekkoon fii dañ faa xaw a guddee fa lañ mujjee fanaan bugguma ko dégg tey <laughs> ñibbi seen kër yi foofu rek laa yem <laughs> ay ci sidaat ma bàyyi la nga wax sa mot de la balaa ngay yegg ci euh, fële ci kaw seen bi euh, ñu def bag bi waa Aba di kontaan rek. di la wax ne la yow amal jàmm. comme ni ñu la koy ñaanalee tout le temps. li ko waral mooy sa baax ak sa gore. ak sa oyof. di ñaanal waa kër gi di ñaanal njaga tamit. di ko wax nit ku baax la nit ku oyof la. di gërëm tamit morceau bi ma war a playback maa ngi ko def sama jigéen maa ngi ko def ak sama jigéen Aïda Samba. maa ngi ko ci gërëm di gërëm jëkkëram Abbas borom Gambia. Abbas Jarju waaw nit ku baax ku mën social. boolewul dara ki wax waaw mm-hmm. baax loolu macha mm-hmm. allah ma way ko ci morso bi nii di gërëm nag waa Kaolack nga mm-hmm. ma dëkk di nuyu sama yaay ak sama waa kër ah fi ma génn nii nday faatu sama sœur moo dem moo dem ba Kuwait rek waaw Abdou Diop ñawal ma ko di kontaan ci mystère mi ma àndal ak Mourtala Saliou am na ah, sa Baye Mor Samb amal jàmm am na solo ñu bàyyi léegi ñu rappi rappi ñu ràppi ràppi waaw ràppi mbëggeel la xam nga mbëggeel dafa bëri façon waaw ku nekk am na ñoo xam ne dañu lay bëgg di la di la pes waaw ñii dañ lay bëgg di la câlin waaw ñii ñii bëgg la di ràppi ràppi am na ñoo xam bu ñu la bëggee ñoom dañuy ràppi ràppi mi ngi noonu ah kon ràppi ràppi kon morceau ràppi la tudd noonu laay bëggee kon man <laughs> ràppi ràppi ayte le temps ñu lay bàyyi ngay dox ba yegg ci kaw scène bi eh, ñu waxtaan ak ki nga xam ne jëlal sa micro jëlal Véñan Véñan mm-hmm, mm-hmm. suma xarit bi mm-hmm. mu nekk nit ku baax nit ku oyof di maa ngi seen tamit Pape Birahim suma doomu nday ah papa ménagère a Gise gars yi ay borom baax lañ li ma naan sañsa maa ko mën lii lu ci nit mën fu ma génn def fan toj fi li ko waral mooy xol bu rafet xol mooy nit aba yàlla na si jàmm yàlla am na solo si daat mën ngaa jàll nii jël sa micro moom ngay woyee mën ngaa jàll noonu le temps nga yegg ci kaw seen bi ñu nuyonte ak nga xam ni mooy euh, l'innovateur a ah. yaakaar naa ni moom moo innové euh, ci bongo indi ci ay innovation yu am solo euh, comme ni ko Ousseyn Mbaye waxee léegi bi mu fi toogee ba jug euh, ñëpp rek ñi nga xam ne ñu def bongo wala ñu bëgg bongo xam nañ kan mooy Vieux Niang ak la def ci bongo Vieux ma bàyyi la nga nuyoonte ak téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi lay euh, seetaan. waa salaamaaleykum Abba ginnaaw buñ sant yàlla dañuy julli ci yonent bi di sant suñuy ñaari waajur. di sant sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhla. Mm-hmm. di wax sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér. di sant borom daaru sunu sëriñ bi maa nag nag xam nga ni may wax naan géwélu borom daaru moo may tëggal tama Pape Faye sa doomu ndey sa xarit waaw Pape a ngi ne maa ngi lay kontaane di nuyu sama gaay ndeysaan <laughs> di nuyu ñëpp abba di kontaan ci ndax li may wax rek kër gi miin naa ko mhm. ndax sa jigéen bi fi jógee depuis 2012 la ànd ak moom di def émission seetu bi muy poté Amina mhm. abba nga baax lool di nuyu sama frère Ndiaga moom it daf ma yaatal ci kër gi kon bu ñuy baaxantal rek dañ koy def saa su ne di bégee ñëpp ak képp kuy bégee Vieux Bongo maa ngi lay bégee tey dina neex dina yàgg ak le moo fi ñëwaat balaa ngay dem ci kaw scène bi xam naa ni noo def ñu waxtaan ci projet yi fi nga jugee ak li ngay waajal ak yooyu yëpp mais avant loolu na ñu dem ci Stade Bonbon. Euh, te ñëwaat léegi d'accord Stade toja rappi rappel. ay te ñu rappi rappi ak ki nga xam ni moom mooy Stade Bonbon wax naa ni ambianceur la réew mi yëpp xam nañ ko El Hadj Malick soo baaxee ñu dem ak Stade Bonbon rappi rappi. ku ci am sa série wane ko yaa ko bëgg wane naa fidèle ci yow wane la du maa la bëgg wane la duma ko nëbb kenn man damay bàyyi ñëpp fii ko ñu xam ne moom rek laa nopp eh, loof la dof ci yow fii yaa fi foor bee wàccal man laa bi ci suuf jege naay du nettali ñu bërëgu foofa toj rajax tëjal wu dugg rek fiis chéri lal bi dafa yàqu wàccal man laa bi ci suuf jege naay du nettali ñu bërëgu foofa toj rajax tëjal wu dugg rek fiis man li ma yor sax yaa ko moom kon jëlal yaay ki ma ñoppati yaay ki may xasal yaay ki may bégal guddeeg bëccëg yow laa nopp su ma jooyee yaa kontaanee bu baax a baax a baax Sidaat Bobo donc dama lay euh, bàyyi nga wax projet yi ak euh, li nga xam ni moom mooy euh, <laughs> damay le temps may bàyyi leen moo waxtaan ak ki nga xam ne mooy Vienya ci projet yi le temps muy dem bay installé. orchestre waaw mais ñu leen ziar mën ngeen a yéeg installé naa problème nag fii ay booy laa àndal yoo xam ne ci mbedd mi lañ nekk ay booy yu xamadi. booy lan moo xew foofu ci mbedd mi lan moo xew ci mbedd mi nu ñu nu ñëwaat ci plateau bi ayca. Mhm. toos ak ñamaxit wóor na yàlla sànq ba léegi ñu ngi woon di toog waaye instant yi am nañ ay gan dama bëgg ngeen aligné wu nii yëg leen nii ñu ngi leen di ziar déwénati déwénati déwén déwénati déwén fekkee déwén ndeysaan booy xamuñ sax déwénati luñ ci war a teg fekkee déwén lañ ci war a teg parce que taluñu dara ak bëloo ak fatt non tos du loolu mbaa xam ngeen ni dëgg la mbaa xam ngeen ni yéen a ngi en direct sur la TFM ak Dakar ne dort pas lan ngeen di wax ak Aba No Stress moo en direct. waaw ma ne Aba dañoo kontaan ci yow. barki Serigne Saliou ku dul Aba bëgguñu dafa mën ambiance. kenn du Aba. Ah. kookoy Aba No Stress. ñu leen laaj nan kat ngeen doon dundee li nga xamante ne moo di koor gi ndax yéen a ngi doon woor ndax yéen a ngi doon def wooru gaale ak ñaata fan ngeen karmat eh eh ñii ay tubaab lan de. bal bopp la naka ngeen dundee koor gi waaw kooru kaana mooy yeewu man de woon naa si moo nekk yeewu ndogu xëdd xëdd tëdd xëdd tëdd xëdd tëdd yeewu ndogu xëdd tëdd yeewu ndogu waaw ñama xit sama kii bu ma lay ñaan yàlla nga yëg ci kaw ndax da ngaa xaw a tolloog oto yi da ngaa nduróog taxi da a waaw kaay taxaw nii kaay taxaw nii boo amee looy wax nga waxtaan ak waa télé bi. waaw waaw man xamal lan moom metti quoi sa làqatu bi nga làqatu wan ci ginnaaw paa da ngay bàyyi sinap bi ta wax. ah léegi léegi ah, damay wax quoi. on li ma gis almadi làqatu bi moo ma jàpp ay ree. yàlla jàmm yaa ngi yow te. loolu indi wuñu fi ñu lay wax déwénati fekkeel déwén baal ñu àq. ah mais sama gars yi. d'accord dañuy baalante àq loolooy que première preuve non <laughs> yaay yooyu première. <laughs> yàlla baax na yàlla baax na. am may may ma solo ma doxantu tuuti. faal may ayca maa ngi ñëwaat ci yéen léegi léegi bu ngeen demaatee feneen am yeneen client euh, bu ngeen ma woowee rek ma jël leen ma euh, tey man ak yéen ba 5 heures du matin comme na ngeen di jéem a jaay dee maa leen gën a dee foofu nañu dem ak Vienya moom ak orchestre am ñu daal di ambiance tuuti laataa ñuy ñëwaat ci plateau bi amal yeneen invité yaakaar naa su ma juumul am na Papa Ndiaye ak nga xam ni mooy le fils de Moustapha Mbaye l'enfant de Grand Dakar Tarba Mbaye ayca ayca bu ko laal sa ndigg ni karaj aawa ca ko sës mu toog king baa ngi soog a ñëw aba ndaanaan noo invité woon muy sama nawle bëgg ma lool Ouzin Mbaye daa baax rek di wax Ouzin Mbaye daa baax rek di wax lu ma bëgg benn ndaanaan da seeti ndaanaan bu njëkk waaye léegi réew mi jaxasoo na ak maa mën maa mën loolu su fi jógul Sénégal du mën a yi duñu benn daa ute

maa jigéen nduuro a way Papa Ndiaye Youssou nduuro a way picc picc yaay ramatu ba cay naa waruloo tontu waruloo tontu bu leen faale dañu dawal baax a a mooy sa mot de la fin. Abba. Euh, dafa am koo xam ne dama koy gërëm bu baax. ayca ayca. muy jëmu ji toog. Papa Ndiaye. Tarba sama rakk la. Mm-hmm. waaye tey kenn benn artiste Sénégal fu ma toog dama koy wax. Uh-huh. du taxaw ni Vieux maa ko jàppale. dëgg la ci kii laa nekkoon 98. bi may door a jógee Saalum Papa Ndiaye. ba tey maa ngi fayit ba tey ñëpp xam vie ñaa jëmm ji la di mm-hmm. nuyu sama rakk ji nga xam ne ñoo bokk ñaari tali <laughs> di di Papa Ndiaye di wax uh-huh. bërki dee moo Ndiaye bi ma ñëwee uh-huh. amoon xew bu ma doon tëgg itali ak Suisse mm-hmm. war fa delluwaat le 3 Italie mm-hmm. wala dellu France le vingt 28 juillet bi incha allah man Abba ak njole dañu war a dem Canada dëgg la dëgg la te moom bu yàqoon mu yàqu dëgg la ndeysaan ndax bi ambassadeur yi toogee xaritam yu jigéen ñi dañuy mhm. Vieyña lañ soxla bii bongo mhm. moom muy moo décortiqué Vieyña Abba mhm. séeri mama yàlla sa jàmm yàgg di kontaan ci ñëpp li may wax rek man liñ may gis fii bareetul xew yi ne bitim réew laa ëpp léegi li may nekk <laughs> yàlla na sa jàmm yàgg ñu ngi lay kontaane bu baax am na ñeneen ndaanaan yu toog ci plateau bi ay ndaanaan ñu ngi fële toog ñun rek la ñuy xaar donc fi ñu toll nii xam naa ni euh, temps bi moom fi ñu toll nii métti na métti goo xam ni xoolal euh, sama booy yi booy est ce que du ma leen may une minute rek une minute euh, ngeen wax parce que ci mbedd mi ngeen ne te xam naa lu ne yéen a koy def ci mbedd mi fan ngeen nekk nii nii nii lu ngeen di def. kii ma loolu kii ma nga ñëwal sama teer. ñoo ngi nii almadi taxaw ak ki nga xamante ni moo di Xirsa. ñu doxantu woon ba fekk ko fi. moom it mu def doxantu bu sew def doxantu bu oyof. xam naa dana yëgal ah. Xirsa déwénati. waaw fekkeel déwén Sénégal fekkeel leen déwén ñëpp Kër Massar jàmm gën donc. Euh, mu ne euh, mën naa ni ñëpp daal Sénégal ñëpp. donc gars yi maa ngi leen di jaajëfal di leen wax ni ngeen baal ma àq baal naa leen yàlla nañu yàlla boole jégal. ah li ñu a ci koor gi yëpp yàlla nañu ko yàlla nangul ah, ci barke Seydina Muhammad. ñu lay fàttali ne yaa ngi en direct Dakar na dool plus jàkkaarloo ki nga xamante ne moo di Aba No Stress lan nga koy wax. ñu lay jaajëfal bu baax di la ndokkeel nag wax ni kontaan nañ bu ci koor gi gis nañ. ndokkeel mais aba aba nee na koy royal xaalis. Ah, bëgg naa loolu laa dégg abal waxuma ko sànq nan dos yaay dama yorel xaalis loolu nu mu demee si day wër di lépp la déedéet yow yow rek la sama yaay yoreel te xaw ma nu mu def ba yoreel la ah, ah man loolu moom jaaxal na ma waa xitaa ñun ñëpp ñu ngi doon seetaan TFM ci li nga xamante ne moo di weeru koor gi mm. Futurs Médias def ci liggéey bu am solo yaa ngi doon seetaan sketch yi stress ah gargote bi mm. quartier général yi mm. naka nga gisee taxawaay TFM ci li nga xam moo di waaw sincèrement nag pour pour dire vrai. TFM mhm. a été le meilleur. Mm, waaw ci com commencé Gala Stress. Mhm. commencé ci gargode yeeg. Mhm. lépp donc TFM moom. Ah, amatul lenn luñ ciy wax daal donc bonne continuation. les gars question piège le travail continue. question piège wul daama ban ma nekkoon sa émission préférée wala ban ma nekkoon sa sketch sama sketch préféré gala no stress. rek eh! eh! moo tax. ëpp na eh, lañ fa nekk tax. waa kon xir saa. non non non parce que gis naa ngeen zee hmm. suus. Ah. ah suus ngeen ci lu neex. waaw ah. loolu fàttali. <laughs> Xirsa ñu ngi lay jaajëfal di la di la baax a baax avant dara nag aha waaye ca jaajëf Xirsa nee sketch préféré euh, mu ngi doon daw TFM moom mooy euh, sunu kër gi nga xam ne la ñu nekkoon gàlle no stress c'est un projet boo xam ni après weeru koor gi di ngeen ci gis ay surprise yu doy waar yoo xam ne mu ngi ñëw mais man sama sketch préféré ci weeru koor gi moo nekkoon les quatre fantastiques quand même euh, Malcolm Doudou ak Fred ak beneen waa ji euh, fàtte naa sax nu mu tudd les quatre fantastiques moo nekkoon sama meilleur sketch ci weeru koor gi donc liggéey bu am solo reetaan naa ba sonn ñoo ma daan wéttali euh, ci weeru koor gi donc vraiment yàlla na seen jàmm yàgg kontaan naa ci yéen bu baax mais Ndiaye. mais mon ami mais Ndiaye brodé. dama amelul kenn bor moo tax <laughs> mais Ndiaye sañse Ndiaye sa diggante ak sañse lan la balaa ñu ciy waxtaan ma bàyyi la ak téléspectateurs yi nga baalu leen baal leen ak ñu waxtaan ak ñoom balaa ñu dem ci son bi ak li nga xam ne moom mooy sa diggante ak sañse papa Ndiaye Thiou ak sañse Ndiaye siyaar naa la kontaan ci moom naan bi moom àddinaa koy bëggee ndax ndax mooy wàcce stress yi oyof na baax na mën na lu muy def waaye boolewul dara ak wax foo ko gis abaa day kaf moom toppul kenn madame rek lay topp <laughs> nuyu sama frère mon ami mën a way Tarba Mbaay mu baax mi di ko bëggee di kontaane artiste fi nekk yëpp samay doomu ndey di di gërëm vie ñaa mhm. ndax li mu def yow am na fu ma jaar ak yow waxoo ko <laughs> amet yu jaar naa fa dama ko wax ba sol waxu ko kon Tarba bu ko vie waxee dama koy remercier na solo waaw di baalu àq sénégalais yi mhm. di baalu àq Njaga Nduur mi fi ne nga xamante ni bu dul woon magam su Nduur moo yóbbu loon Bercy ba léegi maa ngi fecc xumbal kon doo boo xam ni jamono boobu moo xewoon booy di la a jàpp man yow laay gërëm quoi ak père Youssou bu ngeen ma bàyyi woon du baax sama moom tàggu de mais veste mbay jëy la mbay jëyee teg yëfam ba paas yéeg jékki-jékki rek gis kuy naaw di ñëw nga soon ko mbay jëy di tëgg rek di daggal di tëgg rek di ma daggal naan non mais mais booy tay <laughs> soo paree mais Papa Ndiaye mais Papa Ndiaye sa diggante ak c'est tey am na loo xam ne ose ko mën et mel ni ku ko woyefal te woyefalul parce que ñun xam nañ ñaata la brodi di jaar Papa Ndiaye sa diggante ak sañse lan la dégg gi waaw man nag abaa du ma la nëbb dama jàng ca téyër mhm. sama papa doon téyër alaaji Mama Ndiaye baayu tarba xam na ko mhm. waaye jaay naa fëgg jaay mhm. xam nga ndaanaan moom bul nëbb sa bopp ci moo sa fëgg jaay yi première clip Fallou Dieng concu veste bu seer laa fa soloon parce que veste bi maa ngi ko jënd woon ensemble bi yëpp 1500. ah jënd benn buddi bu téeméer bu zone bi moom laa sañse pour wax la ni nit moom ci bi nga ñàkkee weccit mhm. boo mënee rek après bu la yàlla di suturaal naam sax newu fi waaye di nga xaw a moo tax am ma am fit osé ba pare man xam nga ni man dama fan nigérien yi waaw ndax ñoom dañoo am fit man fal ubba rek lay toog ki ma jaay lii jippir laa doon jënd mu la jaay jippir ah yéen la mujjee jaay nee na ma non baa ma jaay la prix bi xale jël temps yi prix ay ci maa ngi nuyu waat. TV euh, dama lay bàyyi xel ci euh, émission bu am solo parce que sama sœur dafa nekk nag mais mun a. barki Seydina Mohamed mënoo koo fay ndax bëgg gi la bëgg. kooku kooku sama sœur heure bu wax. waaw da leen dindi a ne la kër gi. Mm-hmm. bu dul woon moom Aba. laa mbay ñaaw de. dëgg la du ma am ci oto yi. dëgg la du ma am ci yeneen affaire yi. waaw dëgg la Papa Youssou. Ndiaye euh, da sant ñi nga bëgg sant ñëpp ñu xaar la fële nga dem def benn playback bu la neexee sant ñi nga bëgg sant waaw giir ñi nag moom koor gi moom comme que ba deful bii waaw man defuma bii waaw Pape Diouf deful bii waaw ah ñu gërëm rek giir ñu baax ñi kenn du ndax ñoom ñoo ci jàppoon mhm. ah ku ci mel ni Talla Mbengue di ko kontaane boroom borom DSL Talla Mbengue xam nga ko séeri safi ah, waaw waa ju baax jooju mhm. nga xam ne ndaanaan la waaye nag di gërëm nag Keba Kanté Keba Kanté décanté na yëf yi. dëgg la de bi yëf yi ko décanté. kenn waaye di gërëm nag Sénégal gépp waaye di gërëm Maymuna Ndour. Mhm. may Ndour Maymuna mhm. nduur bu baax Maymuna nduur fay bu baax a baax a baax. di gërëm mère Yacine ak faatu Mbaye kan papa waxal ci kaw. waxal. ah jong jong non du ma ko gërëm de jong sañseluma Ah, ah. man en direct laay wax li may wax. sama ménager bi day dóor rek. Ah, moom du dóor keneen moom mën lay dóor. <laughs> yow lañ ñawal boo yéegee gërëm ko. aba ma kontaan nag parce que gars dañu bari ma bañaa may jël temps. donc mën ngaa wàcc nank dem ci kaw seen ba euh, te xam ne dañuy ñëw ci yow léegi bu ko defee nga def playback. Euh, yàlla sa jàmm yàlla ki nekk yàlla yow tamit yàlla nga ma ko pële mën ngaa yóbbaale sa micro ci ngay way awal na la awal na la wàcc donc euh, Mbaye maa ngi lay siyaar mën a jow ñoo bokk papa xam naa ni sama papa mu ngi may woo naan ma abaa may ma sama jàmm sonal nga ma mais Tarba maa ngi lay kontaane bu baax a baax abaa yow da ngaa yab paa bi paa mooy sa morom la sa yoon nekk ci mais maa ngi lay kontaane di la bëggee di la nuyu mhm. di nuyu téléspectateurs yi nekk di seetaan TFM yëpp mhm. à travers TFM aussi ñi ngi profité di baalu ak sénégalais yi mhm. fépp fu ñu mun a nekk partout dans le monde ñu ngi leen di nuyu di leen baalu ak te di leen baal et parce que ñun moom ay xale lañu ba pare lakkale lool surtout suñu mbokku dëkkandoo yi waa Grand Dakar ñaari tali ak li ko wër ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen baalu ak di nuyu sama papa ak sama yaay ak samay xarit ñi nga xam ne ñoom laa àndal di liggéey képp ku bëgg Tarba Mbaye rek ak fépp foo mën a nekk rek maa ngi la fay fekk di la jox sa wàcc wàccuwaay di la siyaar ci korite gi di ñaan jàmm ci réew mi di ñaan jàmm ci àdduna bi ndax àdduna bi am jàmm moo tax Sénégal am jàmm mm. ndax sénégalais yaa ngi dans le monde di ñaanal sëriñ Muntaxa mi nga xam ni mooy sëriñ Touba yàlla na yàgg ci àdduna yàgg fi lool te wér di nuyu ñëpp di sant bu baax a baax a baax. may félicité waat sama directeur El Hadji Assane Gueye tey émission bi mu def ak le président de la. république émission bu am solo en professionnalisme cent pour cent la ñu gis euh, ci émission bi laaj yi nga xam ne ñun dañ ko doon laaj yépp suñu biir kër yeeg ci mbedd mi nga demal ñu ci président dal di ko koy laaj moom tamit lépp rek mu daal di ciy wax daal ciy tontu vraiment amul benn question boo xam ne esquivé na ko lépp mu mën cee wax donc ñu ngi sant bu baax te ñaan jàmm ci réew mi loolu mu wootee woo opposition bi na ko ñëpp wuy ji ko defee ñu waxtaan ci réew mi parce que Sénégal benn bopp la bëgguñu kenn ko xar ñaar yàlla na jàmm yàgg yàlla na ñëpp am jàmm ñi ne ci pouvoir bi ñi ne ci opposition bi yàlla na ñëpp am jàmm parce que ñoom seen jàmm mooy suñu jàmm donc euh, tey président bëgg nañ ci moom waaye Alaaji Assane kontaan nañu ci yow bu baax a baax yàlla na am jàmm yow euh, noo dundee weeru koor un mois nga nekkoon ci benn mouvance bu am solo soirée yeeg yooyu yëpp di dox un mois nga toog ko da nga toog di waaj album da nga toog euh, di waaj ay soirée noo dundee weer wi nga xam ni mooy weeru koor yëpp tarba waaw euh, weeru koor moom yaakaar naa ni mooy weer bi nga xam ni ci la artiste yi di ëpp lu ñuy noppalu ko mhm. mais dund nañ ko comme nuñ koy dundee chaque année mhm. mais ren nag dafa xaw spécial mhm. parce que première fanu koor gi rek laa noppalu li ci des ci cor gi yëpp dama ko nekk studio ndax damay préparer sama album mu war a génn pour bientôt incha allah am nañ yaakaar sax mu génn avant tabaski parce que ñu ngi préparer suñu deuxième album di préparer su ay événements yu mag ci biir ndakaaru ak ci bitim réew. moo tax weeru koor gi yëpp dañoo noppalu ko 4 jours rek li ci des ci cor gi yëpp dañoo nekkoon studio di eggale projet yi di ñaan yàlla mu sotti ñu jox ko sénégalais yi. weeru koor gi vingt neuf jours laa woor xaw ma trente jours am nga ci benn jour boo xam ni yàq nga sama koor tar ba damaa woor dugg TikTok son bi nga way sax amul solo nit ki ci way kilifa la war nga ko mën mais reprise bi jën Diène Farba reprise bi. daa musicale de. xale yi lëmbal <laughs> maa bëgg lëmbal. <laughs> mais Aba lan nga yab sama papa. mais euh, la sa yoon nekk ci. Euh, barke Serigne Touba Mbacke ni nga yabee paa bi. papa Moussa Ba Mbaye wuyu ma xaaral waaw dafa nànk dafa nànk may woo ñuy waxtaan fu sa problème la. loolu sa problème li la paa bi ëpp. <laughs> ni nga ko yabee métti na ma de. <laughs> Ah, ah, lu mel ni laa ah, la wax Papa Ndiaye man faalewu ma la Papa Ndiaye Thiou euh, ñu bàyyi ko mu dem playback bu ko defee ñu ñëwaat léegi war ngaa wax ci noonu jën far ba lëmbal gi ci war nañ ko waxtaane ay ci Papa Ndiaye Thiou nañ dem ak Tarba Mbaye. Papa doomi ndeyu caacoo Papa Ndiaye guy guddaar gi gone ci yow la ni jànge ma ñuy jeex saa ci nekkee dafay ne. bébé xale yi Sénégal lay neex. nga nopp ki la nopp mu nopp la sax dafay neex. rek a neex lay neex. ndax happiness mooy anti stress eh lay neex. lu neex rek a neex lay neex. waay Salim yaa mi Seydou Marème lay neex. xale yi Gambia lay neex. wàllu ko dàq dàq dàq dàq. borom 7TV. ak réew mi fi mu toll foog mu dee. jigéenu Papis. Papa Ndiaye ñëw na ak démb bee. Papa Ndiaye aada géwél caacoo sax day neex. la boo ko bis ko naat yow li ngay jam moo neex ne ci moom la ñuy jàngee way di gël yaat ma caam fa mu xottat moo neex si lem bu ñu sekk boole neex mm, moo neex ak fi réew mi tollu lëmbal ça fait du bien ak fi réew mi tollu lëmbal ça fait du bien eh, ak fi réew mi tollu lëmbal ça fait du bien ak fi réew mi tollu lëmbal ça fait du bien ça fait le ataay bi neex na lool dama bëgg a wax ban warga ngay ataayee mais munuma ma ko wax ndax du sama partenaire mais ataay bu neex ngay ataay xaw ma euh, waaw ñu wàccu yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla defal la jàmm fay borom kër gi kontaan naa jërëjëf fay njaga kontaan naa jërëjëf barke weeru koor jaajëf la wax ni nag am na lu rëy luy ñëw fee ginnaaw suba ah. ci alaaji alsan mbay ak leneen ah. incha allah xaar leen ko merci beaucoup Tarba. bëggee naa la yàgg sama frère yëpp loo am rek indil ñu ko non loolu du dara yow fii sa kër la plat di gërëm nag sama ménagère bi nga xam ne fu mu dem sama tur lay joxe yàlla baax na jël fa ay tisite du ma ci yëg dara muy xalam di ca jaay voilà ma yaay borom ay ca yàlla baax na jaajëf kontaan nañu bu baax baax ci Papa Ndiaye Thiou waaye di waajal la euh, beneen euh, seetu Sénégal euh, seetu Sénégal xam ngeen ni concept bu bees la seetu Sénégal xam ngeen ni ci télévente rek la ñuy dox jaay ak jënd seetu Sénégal lundi mardi ak mercredi 16h ba 18h yaakaar naa ne lépp loo bëgg mu feeñ nga koy wane mën nga ñu ko indil lépp loo bëgg mu jar nga koy jaay mën nga ñu koo indil lundi 16h mardi 16h mercredi 16 ñu tàmbale Sénégal yëpp di bàyyi xel donc ñu am ay plateau yoo xam ni lépp rek lu ñu fa wane mu feeñ lépp lu ñu fa teg mu jar euh, waaye di sant bu baax di gërëm. bu làmp yi leeree di sant bu baax bu gërëm émission yi bu amee ndax courant bu amul woon yëpp du am Papa Demba bi tey l'homme de la scène rek maa ngi lay kontaane le saalum saalum noble bu nit ñiy wax yow yaa ngi ci liggéey rek maa ngi lay kontaane di kontaan ci ñoom Marietou Thiam nga xam ni mooy baay wala mooy bàjjanu Awa Baba Thiam moom madame Seye Mariette ñu ngi koy kontaanee bu baax a baax merci beaucoup papa Demba yàlla na yàlla sàmm la liggéey rek ngay def yàlla na yàlla taxawu la léegi nag bu ko defee bu subaa dañuy ñëwaat fii ñun. waaw bu subaa nag fii la ñuy ñëwaat. fii ci cosaan ak Tarba Mbaye ndax cosaan miin nañ ko yàgg nañ fee woote. suba nag spécial ndawoon na laa fi woote. Mhm. Tarba Mbaye en live biir cosaan night di ci woo àdduna bi yëpp nañ ñëw parce que nag soirée bi à domicile la man maay resevoir damay dox génn sama kër dugg cosaan waa Grand Dakar pare nañu waa ñaari tali pare nañu kon boog ñuy jógee feneen di teel a ñëw dama bëgg ngeen ñëw jiitu fi waa Grand Dakar ñaari tali soir bi une lay commencé teel a ñëw teel a dugg ma teel a commencé. dañuy dox rek ku yéex bokkoo. ñi dëkk benn tali ñaari tali HLM ak Medina. Colobane dañuy man en face cosaan laa de. dëkk ah damay ah génn sama kër dox ñëw. Ah waa Grand Dakar dañuy génn dox ñëw. man waxuma ak ñi fi dëkk. ñi fi dëkkul laay wax te bëgg a ñëw nañ teel a ñëw. nañ teel a ñëw. incha allah demain lay doon dimanche le 23 spécial ndëwënal ak Tarba Mbaye 100 pour cent ñafal ñafal fii ci cosaan. la temps Tarba Mbaye di dox di dem ci kaw seen bi dañuy dem xool ñu ñëpp ensemble la bande annonce bu suba. fii lay xewee ci biir cosaan yaakaar naa ni miin na fii et puis ñi nga xam ne ñoo koy baal ñoom itamit ñu xam fii lañ mu mosoo leen maa gis soirée ak ba Mbaye am na ay surprise yoo xam ne bu subaa du ngeen bëgg ñu ñu nettal leen ko fii rek ngeen di mën a ñëw pour mën ko fee fekk yéen ñi amagul seen i billet daw leen gaaw ngeen jël seen i billet moo mën a way piir waaye moo bandi moo xam seen. tarkalla moo saay-saay ci kaw seen ñu dem xool la annonce le temps mu yegg ci kaw seen bi daal du ñuy wayal bu ñu paree ci bande annonce bi rek dañuy dem ci Tarba Mbaye mu playback ayca El Hadj Malick jaajëf ay salaamaaleykum waa Ndakaaru salaamaaleykum la monde entier man Tarba Mbaye maa ngi leen di jox rendez-vous le lendemain de la Korité fii ci Cosaan Night Tarba Mbaye la super royal ñëw ak ay morceaux yu bees tàkk di ci woo ñëpp ngeen ñëw def ba mu baax wane seen sañ sa jaagar jaagari ma leen di woyal fépp di neex lépp di neex incha allahu à ne pas manquer le lendemain de la Korité nag lay xewee fii ci Cosaan Grand Dakar ñaari tali Biscuiterie waagu ñaay HLM benn tali Médina Gueule Tapée Fass Colobane Ndakaaroo fii daje le lendemain de la Korité ak Tarba Mbaye xalaat rek ñàkk la kon boog yaa ko fa am soo leen baale dañu koy defaat ñaafal kaw rek eh, bàyyi lu ci biir ñëwaat fii ci biir cosaan ànd ak l'enfant chéri de Grand Dakar l'enfant chéri des Dakarois l'homme Tarba Mbaye ñu koy kontaane bu baax on a un phénomène ci plateau bi xaw ma ndax damay dem ci mbedd mi El Hadj Malick bu fekkee foofoo ngi jax ci mbedd mi nga jox ma bu dee euh, ma parce que fii dina mel ni mbedd mi parce que fii dina mel ni mbedd mi euh, ndax Cheikh Bongo laa am euh, Cheikh dafa am lu am ci moom c'est un bongo man qui est un bongoman boo xam ni tout le Sénégal l'aime tous les Sénégalais aiment Cheikh Bongoman donc yaakaar naa ni ki toog ci plateau bi c'est un phénomène parce que Birane Ndour bu amee bongoman bu koy daaneel mooy Cheikh Cheikh nee na day jaamu yàlla ci man day def te nee bu ma ko wax te buggul kenn wax ko donc Cheikh bu demee ba daaneel biraan nga xam ni tarkal Sénégal yëpp la bëgg Cheikh Bongo euh, maa ngi lay kontaanee di la ñaan yàlla tey nga xam ni rek dañoo am yeneen invité yu toog di ñu xaar euh, euh, nga dimbali ma rek ngir yàlla. maa ngi lay nuyu di nuyu euh, euh, seen waa kër ak say xarit ak ñëpp rek bàyyi la ak téléspectateurs yi nga waxtaan ak ñoom. waa Bécaye maa ngi lay fay. waaw. yow xam nga nu ma koy tuddee tey. Ah. tey du ma ne Aba dama naan bekkaay ah. nag Sénégal ah. bu ñu xàmmee wee ndaanaa si ñuy toog palaatoo da koy lim. kooku sama baay la. ñëpp a ngi doon reetaan de. waaye Sénégal. dañoo fi mu jëm. waaye Sénégal. waaw fu mu toll nii. abaa yaa ko téye. la. yàlla def. dëgg may nuyu sama baay bekkaay di ko nuyuwaat. dëgg di nuyu nag Sénégal yépp di nuyu àdduna kulim lim juum tey moom wax ji dama koy gàttal. Mm-hmm. ah da ngay tënk waa dañ may waaw xam nga lu tax. ak coow li bongo bi kii mooy kii kële mooy kële nga ne tey da ngay tënk lépp tey. waa gannaaw dee dañuy sant yàlla. nag Youssou Ndour. àdduna ñoo ko war a ñaanal. Youssou Ndour suñu baay jooju yamul si a boo xoolee weeru koor bi la mu def. àdduna ñëpp a dañ koy ñaanal yàlla na yeggali yéeneem. <laughs> dëgg daal neexul man man Cheikh Bongo Youssou Kassé lay topp waaye du ma wax si benn Bongo man waaw nag ñun ñëpp benn lañ dañuy sant yàlla rek maa ngi gis ci tribune bi sama ay doom a ah, euh, ñoom yaa awa ñoom Mélissa mbay ah, ñoom Mame Diarra ana Bousso Mame Bousso maa ngi leen di seen euh, ci kaw tribune bi euh, xale yi cameraman bii jël ñi ci kaw tribune bi ñi ngay jël ñëpp samay waa kër lañ ñoom Pam Mbuub ah, ñoom Amdi ah, samay waa kër rek ñoom Wili ah, foofu moom waa koñ bala ñoom Munaas ñoom Munaas waa koñ bi ñooñ samay doom rek laa fay gis tabarkàlla yaakaar ah maam Boussa laa ko tegoon Munaas la Munaas bu Wili Munaas mooy génn ak Wili Munaas mooy génn ak Wili bu ko defee bu ko defee Mélissa mbay <laughs> ayte maa ngi ñëwaat ci yéen léegi léegi yaa aw moom euh, suñu directeur technique moo koy denc tabarkàlla euh, maa ngi ñëwaat ci yéen léegi léegi du ko defee Cheikh est-ce que du ma la bàyyi euh, nga dem fële ci gars yi ambiance wala dafa am ñoo bëgg sant ak ñoo xam ne bëgg nga leen gërëm avant nga yëg fële. maa ngi sant àdduna ñëpp. di nuyu sama baay am Ahmed Tidiane Ba. Mm-hmm. bekk démb la ma jëndal ay baafal. tey Messi. Messi moom. kookoo gaaw si man baax si man waaye sama yaay kooku dañ koy ñaanal wër a gudd fan nag jigéen ju man góor la tey du ma lim kenn abaa damay ñëw def dem tëddi nag 9 suba ba léegi maa ngi wax waaw kaay acce nañu bàyyi Cheikh le yegg bay def doguma la waaw sama papa mbay gay fay nee woon du lim kenn de non kooku su ma taxawee limuma ko lu ma lekk bàkkaar lay doon. bàyyi Fallou Thiané. ndax lu may dund nii moom la. bàyyi abu bàyyi abu Guèye maa ngi lay kontaanee bu baax Père Mbaye moom la ñu dénk sama yaay maam yàlla na yàlla defal ko jàmm ju bare bare waaye ki nga xam mooy ba mooy bàyyi Zeyna ak Jeyna l'homme de CDC bàyyi. Badou Diawo ah, maamu Amélia chérie Amélia l'homme de colda maa ngi koy kontaane bu baax moom itamit su ma toogee ci télé wax ba jug te du ko wax mooy tarkal lu ma lekk riba la yàlla na yàlla defal ko jàmm bu baax mu yàlla bëggee na ma bàyyi ak maam booy yàlla na jàmmam yàgg waaye Mélissa ak yaa awo ak Mounaas samay doom lañu ñoom itamit bu ma yàlla bëggee na ma bàyyi ak ñoom dañuy sonn ci man te duñ ci xaar dërëm bu ma xiifee ñu ñëw su ma sonnee ñu ñëw du ma fàtte bébé ak naa Ndiaye ak mami mami Thiam c'est mes femmes ah, man mes dames laa leen di woowee samay doom samay rakk samay xarit yàlla na yàlla defal leen jàmm ju baax man yeen rek laay topp man yéen rek laay topp ah yàlla na yàlla defal leen jàmm kontaan naa ci yéen bu ko defee balaa may jël yeneen invité ñaari ndaanaan ñu ñëw fii ci plateau bi dinaa wax programme yi nga xam ni moom mooy am bu suba ki nga xam ni moom mooy El kayita Keita ma nga Saraba bu suba ki nga xam ni mooy le fils de Grand Dakar moom mi léegi. tey Tarba Mbaye mu ngi fii ci cosaan waaye le 6 dañuy nekk Grand Théâtre Esplanade ak jiba le fils de Thiès l'enfant chéri de toutes les jeunes filles en de et de toute la jeunesse ma nga fi nga xam ne moom mooy Thiès Esplanade fi nga xam ne mooy Grand Dakar waaye 6 la ñuy dem ànd ak Bouba ànd ak ki nga xam ni moom mooy Raku Prod yaakaar naa ni événement la bu mag Bouba à Dakar. Ah, ànd ci ak ñoom Samba Pesi ànd ci ak ñoom booy bilu ak yeneen i naanaan yoo xam ne ñooy def première partie bi ay événement la yoo xam ne bu ngeen bëggee xam lan moo fay xew ak lépp rek koñ leen ko ci biir seetu Sénégal dinañ fa gën a yaatal gën fa waxtaan ba mu gën a waxtaan ba mu kii kii ba mu gën a neex Cheikh indi nga ay kuddu Cheikh indi nga ay fourchette. ma yeese. yeese nga. ak paaka. Cheikh indi na kuddu. pour ma yeesi ak paaka ñun yuusu la ñu bëgg ñun ñii yuusu la ñu bëgg ñun yuusu la ñu bëgg ñun ñii yuusu la ñu bëgg Sénégal ñun yuusu Youssou la ñu bëgg ñun ñii Youssou la ñu bëgg ñun Youssou la ñu bëgg ñun ñii ma yesi yesi ga aba Youssou bu yesee fo muy toog eh, sa jaamu gaaw a gaaw foofu lay doon Sakaw Youssou bu wàññi baa ngi nii yow aawa yaay am na lu man dinaa ko wax Sénégal luñ doon xaar Dakar na doog paa aba doxal ma ay paa taxaw place way Cheikh doo ñu dimbali pour tay pour tay tay Cheikh nga Cheikh

baba sa yaay boo ko laajee baabooy aaya aaya aaya aaya aaya aaya aaya may wax noppil kuy wax ba gis seet jógal nga ñaareel ñëw na ñaareel ñëw na Sénégal Awa Dof ñaareel ñëw na wax leen Awa dawal ñaareel ñëw na Awa dawal ñaareel ñëw na daa dugg si kër gi dootoo nga defati doo ma laaj lu tax sëyoo sëyoo sëyoo Awa sëyoo sëyoo débat sa petit geste sag wax ju ñaaw nga dañu doon tabax aba dafay pafe nekk màkk la juddoo ñu fekk ko Medine tegal ko fa jox ko fa jàkk jox ko fa néeg mu dëkk fa sama yaay taalibe seex la man sama yaay taalibe seex la Alaaji Maalik Si Si Maalik Sëriñ Babacar Si Si Maalik Sëriñ man yeewu kanam ba day tiitooku ñaareel dafa yeewu kanam ba néewi daa sàccaay ñetteel la ko bett daa di ko duub muy sàccaay ñeenteel diggu ko yaayam di ku ne boppam latal Cheikh Bongo Cheikh Bongo le phénomène du Bongo au Sénégal Cheikh Bongo yaakaar tey moom foo fanaan yaak aawo yi tarkal la sa guddi dina neex eh, ndax kontaan ñu ci yow bu baax a baax am na aawo yoo xam ne ñu ngi seetaan ñu ngi xaxataay seen xol yaa ngi féex yal na yàlla defal la jàmm Cheikh c'est un phénomène Cheikh Bongo on l'aime bien ah on aime bien Cheikh Bongo euh, vraiment il est extraordinaire day ñëw def li muy def wàcc dem ñibbi ñu ngi lay kontaan et puis di kontaan ci awo yi ah ñoom bébé daaru ah ñoom mami Thiam ñoom yaa awa Euh, ñoom kii euh, ñoom Mati Ndiaye euh, chéri Iliman Lam awoy ah ñoom première dame Mariam Faye Sall awoy ah daal ñoom Soxna Aydara awoy ah yi Aïda Coulibaly mu Youssou Mame Ndiaye mu Mbaye Dieye Faye Fatima awoy <laughs> waaw awoy daal ñu ngi leen di kontaane léegi léegi seet teet teet teet te awoy li mu waxal lu baax yëpp c'est le contraire ñaan aawo yi xaw ma lan ñooy kii ñaareel dafa mën a yem ak mii maa ngi bëgg jël ñaar ay aawo yéen damay leen suñu jàmm ay ca am naa ñaari ndaanaan yu toog xam naa ni euh, ñoom ñooy tëj sama plateau tey ak ñoom ndaanaan la ñu balaa may waxtaan ak ñoom nañu dem def une page de pub te ñëwaat léegi daal di yeggali événement yi war a am ci réew mi yépp ñu ànd ci ak groupe Futur Média ñu dem léegi te ñëwaat léegi ma jeexal ak sama ñaari ndaanaan yi toog ay ca salaamaaleykum waa Ndakaaru salaamaaleykum le monde entier man Tarba Mbaye maa ngi leen di jox rendez la le lendemain de la Korité fii ci Cosaan Night Tarba Mbaye la super royal ñëw ak ay morceaux yu bees tàq di ci woo ñëpp ngeen ñëw def ba mu baax wane seen sañse jaagar jaagari ma leen di woyal fépp di neex lépp di neex incha allah à ne pas manquer le lendemain de la Korité nag lay xewee fii ci Cosaan Grand Dakar ñaari tali Biscuiterie Waagu Ñaay HLM benn tali Médina Gueule Tapée Fass Colobane Ndakaaroo fii daje le lendemain de la Korité ak tarba mbàyyi xalaat rek ñàkk la kon boog yaa ko fa am. soo leen baale dañu koy salaamaaleykum waa Dakar salaamaaleykum le monde entier man Tarba Mbaye maa ngi leen di jox rendez-vous le lendemain de la Korité fii ci Cosaan Night lendemain de la Korité nag lay xewee fii ci Cosaan Grand Dakar ñaari tali Biscuiterie yi Waagu Ñaay HLM benn tali Médina Gueule Tapée Fass Colobane Ndakaaroo fii daje le lendemain de la Korité ak Tarba Mbaye xalaat rek ñàkk la kon boog yaa ko fa am. Après le succès de la sortie de son album Alaji, Djeba, l'artiste, Djeba, le roi des hits, Djeba, l'homme qui enflamme le YouTube, Djeba, l'homme des millions de vues sur YouTube, Djeba, borom jamb sa di le roi de l'afro-mbalax vous donne rendez-vous sur l'esplanade du Grand Théâtre de Dakar le 6 à Dakar, un concert exceptionnel. ci xale doyul bay des fu mu jëm ma nga jëm splanade bu grand théâtre national de Dakar attention teel leen jënd seen billet entrée 3000 5000 VIP pom dooleel ko def naa ci sama doole damay ànd ndoog Jeeba le 6 mai. champion nga fees. Rahou Prod est de retour avec un événement exceptionnel réservé à la jeunesse du Sénégal. Booba sera à Dakar. Non, vous n'hallucinez pas. Le rappeur franco-sénégalais Booba en concert au Sénégal. Rendez-vous le samedi 6 mai 2023 à l'esplanade du 6S pour une soirée mémorable à ne surtout pas rater. Le Duc sera là pour faire trembler le Sénégal avec son talent incontestable. en première partie Sabaposi, Top Boy, Bilou, Akazuki SN, Zoflam, Issa Yazuki, From Paris et en platine DJ Dollar. Entrée simple, francs CFA, VIP simple, francs CFA et VIP prestige, francs CFA. Pour plus ou au Les billets sont disponibles sur le site embarquer dans tous les Jollof Chicken saveur d'Asie Bourguiba restaurant symphonique Pizza Time Apple Fun Maris un événement en partenariat avec la ville de Dakar TFM Air Sénégal Digitalcom Atlantis Group Adjo Total Trace Sénégal Dakar le monde vous envie ayca mu ngi noonu donc euh, muy événement yu war a xew ci réew mi mais bokk na ci événement yu war a am ci réew mi le tournoi du rire euh, trois vendredi yu tegloo vendredi 12 vendredi 19 ak vendredi le 26 fii au cosaan xam ngeen ni amoon na daaw mu nekkoon lu extraordinaire ren ñu ne dañ koy defar le tournoi du rire on prend trois groupes yoo xam ni dañ ci boole ay humoristes yoo xam ni ay groupe lay nekk groupe A groupe B ak groupe C xool ban bis mooy gën a metti ban bis mooy gën a saf ban bis mooy gën a neex et ku gagné euh, groupe mooy gagné ku gagné am nga un week-end à am nga yeneen ak yeneen ay lot yoo xam ne équipe bi gagné moo koy moom waaye ñuy tàllal suñuy loxo Ousmane euh, Sylla nga xam ni c'est le DG de Dakar Dem Dikk pour mu accompagner ñu ci euh, le tournoi du rire mais accompagner ñu ci Abba Show Tour parce que on va faire les quatorze régions du Sénégal ànd ci ak le DG Ousmane ci laa dem ba dem Kédougou gi nga xam ne moom moo fay maire bi ñu koy kontaanee bu baax moom itamit directeur gi liggéey rek lay def te boolewu ci benn wax un jeune frais un jeune dynamique un jeune plein de tenus am énergie bu bëree bëri bëri Ousmane Sylla ñu ngi koy kontaanee bu baax a baax di bég euh, ci Alassane Alassane euh, Alassane Camara ca Louga euh, nuyul moom monsieur le maire Moustapha Diop bu baax moom itamit mu ngi ñuy bàyyi xel heure bii. ay kilifa toog di ñu seetaan faw ñu leen nuyu bu baax a baax Alassane Camara nuyu la monsieur le maire wax ko ñu ngi waaj a ñëw ci Louga dañuy def le tour du Sénégal def Abacho tour ak les quatorze régions donc dinañu ci invité dinañu ci invité ay ndaanaan yu baree baree bari donc mu ngi noonu am na solo nañu dem ci euh, ki nga xam ni mooy sama gauche wala ki nekk sama droite xaw ma kañ laa ci njëkk invité naa ñu nar a tëj émission bi ñu bari tiitër ñaari waykat yi gën a bari tiitër ci Sénégal ñoo nar a ànd ak man tëj émission bi Demba <laughs> Demba Guissé maa ngi lay nuyu. Allah. Euh, waxal salaamaaleykum. <laughs> salaamaaleykum euh, Bekay. <laughs> dafa juum mais pour walla ni naanaan du daan da ko defaraat. waaw dafa juum booy bi booy bi moo ñooñ nga xam te ne da nga yëkkati daan eh, boo leen galgale ñu dem daanu dañu jël basang tëdd. <laughs> maa ngi lay nuyu. ba dafa neex. salaamaaleykum. au lieu de Bekay maa ngi lay nuyu Abba. maa ngi di la kontaanee. di nuyu sama fan si ñoom euh, Balla Diop. ak parce que tribune bi maa tax ñu toog fa. est ce que sama ayca ñi couple foofu yëpp maa ngi leen di kontaan bu baax a baax a baax. parce dama kontaan ndax heure bi waroon na fekk ngeen dem tëddee. mais da ne comme dem si day ñëw vraiment ngeen toog di ma xaar. am na solo xam nga fan sa dafa metti am solo fan solo. <laughs> ñu ngi lay kontaanee bu sama waa ji. ñu ngi lay siyaar di la kontaanee. di la kontaanee Pape mi. Euh, dafa faux. kii. dafa faux sama yoon nekkul ah, ah, dama lay wax. dafa ñëw di la présenter benn morso di la présenter benn morso mënuma laa bàyyi. Mhm. je pense que déglu nga ko keroog ma def ko single fan yii passé. waaw dégg waaw. ma envoyé ko mu félicité ma ne ma ne vraiment booy musuma gis ni nga tibbee mënuma laa bàyyi dafa doy waar. Mhm. ndeke boppam lay félicité. way na ko da ko acoustique. <laughs> <laughs> Pape Birahim maa ngi lay nuyu donc loolu moom euh, problème la parce que dama gis ci rab bi. Euh, ci ci biir musique beeg ñëpp di am problème mais yéen ñaar seen diggante dama metti dama bëgg ngeen am problème mais boobu ba tey nangu ngeen am problème li problème la tey il t'a accusé en direct donc boo nuyoo ba noppi li il faut li il faut da ci tontu. waaw maa ngi ñëpp di ziar ñëpp ci li euh, baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di mm-hmm. euh, kontaan ci toog ci plateau bi TFM macha allah ñu ngi ziar daal ñëpp daal bàyyiwuñu kenn di wax ni xam nga. <laughs> du doo tontu ci loolu doo ci tontu ay wax yu sew la quoi. ok ay wax yu xam nga ci dafa dafa bëgg ay wax yu sew. bëgg ay wax yu moom dafa mel ni femme quoi ko ka seen Samba Jëri Jàllo kii moo bëgg wax yu sew. ndeysaan ba ñëw sànq rek automatiquement. waaw xam nga moom soirée Kepaale nag. El Hadj Malick El Hadj Malick préparé ma la bonne annonce avant show bu suba. ci biir weeru koor gi dañ cee def benn abatio bu exceptionnel abatio bu extraordinaire <laughs> catastrophique sax mu naa ko wax mais préparé ma ko bu subaa à partir de vingt et une heures mooy daw sur la TFM mais lu mel nii mosuma koo gis ci sama àdduna abatio meilleur abatio mooy abatio bi nar a am suba à la TFM lu garaaw a ngi noonu donc fi ñu toll nii. Macky dafa bëgg sa non non bu tontu ci loolu moom dafa nekk dafa naroon nekk femme. <laughs> waaw c'est que xam nga c'est que xam nga ah. bi gën a foo ci àdduna kii la. Oh, léegi xam nga des fois kii day solu kabooy nekkee indol la. Oh, xam naa bu baax a baax a baax. man li tax ma man li tax ma xool leen yéen ñaar. ne yéen ñaari tëj man man naa ko xam. Euh. dama bëgg ngeen baalu àq réew mi baalante ak ñoom àq kan ci yéen ñaar. kenn yëkkati loxoom ne may njëkk a way waaye bu ko defee keneen ki des way ñu tëj émission bi non may njëkk a way ne ni yoon baalonte ak ak waa réew mi baalonte ñu toogal Demba maa ngi baalu ak ñëpp non maa ko njëkk a way naa toog maa ngi baalu ak ñëpp di baalu ak ñëpp baalu bi ak bi yëpp day xaw a yàgg damay joxe rendez-vous waaw euh, le maa ngi Nouakchott Mauritanie euh, à la euh, la case bu Mauritanie ma ànd ci Boups production hmm. le 6 incha allah rabbi Demba Guissé biir Nouakchott la Casa. mu fa jógee le 30 bii maa ngi encore Sorano. Balla invité naa leen Sorano dimanche bii di ñëw ah. di remercier Ndiaga Ndour ah. mhm. ndax Sorano bi passé vraiment def na jàpp na ci ba mu baax a baax ma ko remercier ah. Mhm, mhm. su ma fi jógee nag mois de mois de mai bi maa ngi war a dem entre Paris ak Italie du ma wax date yi nag. waaw parce yi. ñoom xam nañ leen damay bañ ñu message leen wala vocal leen mu wax date bi ma def playback te ñëw. ayca Demba ñu ngi lay bëggee baax ma bàyyi la le temps muy dem di playback nga wax ak ak téléspectateurs yi baaloon teg ñoom ak saafoon teg ñoom nga wax ñi tamit yow say projet. waa waaw ndeysaan bu ko tontu de bul tontu de. man du ma ko tontu ah, dama koy ah. bàyyi xam nga ah. moom. mooy li ma la wax rek dafa naroon nekk jigéen far mu nekk góor. Euh, maa ngi gërëm ñëpp di <laughs> sant di ñaan yàlla def jàmm ci Sénégal aussi di wax ni. Euh, euh, projet yaa suñu kanam euh, yu bari macha allah dañu lancé euh, mënuma la bàyyi bi mhm. euh, sénégalais yëpp gis nga nu ñu ko accueillir ci tiktok bi vraiment tiktok bi yëpp mënuma la bàyyi la mhm, mhm, di leen ñaanal yàlla daal def fi jàmm daal aba jàmm daal ci la lépp gis naa nga def projet bu mag ak ay ponkal yu nekk Amérique projet bu rëy a rëy yaakaar naa ni dañ koy dañ koy indi rek ñu dugg ci biir weeru koor gi loolu après weeru koor gi faaw ñu mën cee def plateau seetu Sénégal euh, ñëw ñu waxtaan ci waxtaan ci projet bi ak ñi nga xam ni ñoom nga ci àndal ñëpp waaw di euh, ah. di leen di leen di leen euh, nuy bu baax muy Déguiba di njawar di Euh, comment dirais-je di euh, Jili. Mhm. Euh, ñoom ñooy sama producteur ñu nekk fële ci Amérique. Mhm. ñuy waajal album international bu doy waar. moo mhm. xamante ni incha allah bientôt di ngeen ci am ay single am ci ay surprise yoo xamante ni seen xol dina sedd daal. seetu Sénégal la ñu koy waxtaanee ma gis nga way li xew ci réew mi way actualité réew mi loolu yëpp nga way ko ñu tegal ma son bi mu nekk son ma marqué du bett gi ma bett ci ki ko way daa mën a way mais f nga génn ci way week yëpp bëgg ma ko fi. ma bëgg ñu dem seetu bi gën loolu moom. bu ma la ko ñaanee di ma ko may. amul benn problème incha allah noonu lay demee. ayca mu gën a yaatu. ayca Birahim mu ngi noonu nañu dem ci démb gisee Chérif Fatima Raki Pendo Tarkal ñu ngi lay kontaanee bu baax baax sama waa ji El Hadj Malick c'est parti pour démb gisee ñu ñëwaat léegi ci plateau bi ayca. Kongo wawuji naɓe noye ɓiɗɗo allah rokkimi ɓernde lamde sa woni ɓiɗɗo pullo amalama allah rokkuma nafaji naɓe ma sannoɗi ndi magu Benoto weli Omolaabi diine seen lu marta weli Cheikh Oumar Hande mi man ma weli Cerno Aliou Thiam Cerno Sama Sa Iyee demgal mulaan weli Jidangal kursinangal weli Min demba gise mi mano weli Demgal mulaan weli gambe sumi medi kesiri non mami dor njoren woto accu ko mbatta ko weli non weli non weli non mbatta ko weli non weli non weli non woto accu ko mbatta mbatta ko weli non Leader Musa Kenge Torobe soringo kanal e kanare di toro ngi lay kontaanee bu baax a baax a baax dem ba gisee jaajëf bëgg nañ ci yow lu bare bare bari laataa ñuy tëj ci émission bi dañuy bàyyi ki nga xam ne mooy Pape Birahim moom itamit mu dem defi euh, playback avant ñuy dem ci Pape Birahim wala le temps ñu koy bàyyi muy dox bay dem defi playback nañu dem xooli la bande annonce Abba Show suba wala sax tey à partir de 21h euh, sur la TFM Abba Show bu doy waar Abba Show bu neex a neex a neex a neex a neex ñu dem seetaani ko euh, te ñëwaat léegi fekk ki nga xam ni moom mooy Pape Birahim ci kaw scène bi moom itamit mu woy ayte Elaj Malick bande annonce Abba Show قولوا Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savannes ancestrales. Afrique que ma grand-mère au bord de ce front lointain. mais je n'étais jamais connu. ma tegaat beneen bool boo xam ne 10 kilos la. mu ne ko faaf lekk. xam naa boobu Baye ma mën naa lekk doo xam loolu mbooy mu leer naa ñoo xam naa xam naa ko dama daa woon géej jox ko sax mu lekk ko de xam loolu mbooy mu leer eh, doo xool. gars yi ñu xam ko ak ñu ñàkk koo xam musée ngi doxaan ci booyu milieu bi Baye Fall doo mën naa lekk doxaan loolu mbooy bari Pape Birame mooy way acca mu ngi noonu donc am na solo ñu dem euh, ci euh, playback bi xooli Pape Birahim euh, te ñëwaat léegi ci plateau bi daal di koy tëj parce que fi ñu toll nii li ñu amoon ci waxtu yëpp jeex na lépp El Hadj Malick pour muy leer li ñu amoon ci waxtu lépp jeex na fi ñu toll nii lu ñu laal rek ñu ngi laal ci yëfi keneen ñu dem ci Pape Birahim mu daal di way ñu ñëwaat léegi ñëpp tàggatoo ñu daal di ñibbi leer na lii a baax a baax a baax jaajëf Pape Birahim et c'était am euh, ku mel ni Pape Birahim ci plateau bi ak ndaanaan yi nga xam ne ñoom la ñu amoon ci plateau bi yëpp kontaan nañu encore une fois yaakaar naa ni euh, émission bi ma ngay jeex euh, ñi nga xam ni ñoom laa na ci émission bi ñu ubbi ñoom laay àndal ñu tëj li nga xam ni moom mooy émission bi ana Diop ana Toch ana Ndama yaakaar naa ne mën ngeen a ñëw ñu tëj émission bi laataa ngeen yegg si ma waxtaan ak Kia ak su Soukeyna euh, Kia fi nga génn ku la fa génn Kia koy sant koy gërëm ak numéro téléphone li nga sol yëpp kan ma xale yi nag da ngeen a jong ma te peccum liir bu neexee yaa jaatee ca mbagg ya maanaam bu sañse yi taaroo loolu rafet euh, suñu ay téyër jàpp nañ ci bu baax a baax maa ngi nuyu Cinco bu baax euh, sama téyër ak samay téyër yi yi nga xam ni ñoo nekk Cinco di ma ñëwal yëpp rek maa ngi leen di kontaane bu baax a baax acca aba damay gërëm ki nga xam ni sama papa la mhm. euh, di bàyyi ci man ki nga xam ni moom mooy Pape Seck Touba Couture naa moo jàppale kooku nga xam ni mu nga nekk fële ci rond point Yoff boo demee ba ci pharmacie Mame Diarra bi da nga ko fay fekk numéro téléphone nam di 78 131 09 75 boo leen fa mais lépp lu ngeen bëgg rek muy góor muy jigéen bu leen dawa ñawalee rek ngeen xam ne ndaanaan moo leen am na solo am na solo ngi lay kontaane mm-hmm. waaw maa ngi bëgg rek comme d'habitude jox ñëpp ay rek ay rendez-vous ci événement yi am ak programme yi am ak lépp rek ci Dakar ne dort pas dañuy dugg fépp lépp loo xam ne rek mu ngi daw ci télé bi ñu ngi leen ciy jox rendez-vous di leen jox rendez tamit lépp loo xam ni Dakar ne dort pas ñu koy def Sénégal rek Euh, Tamba fu mu mënti nekk rek ñun doon fas yéene nañoo ñëw taxaw jàkkaarloo ak ñoom ñu fas yéene cee liggéey. ngeen yombalal leen ko waaye bu ngeen di dem laaj leen paas rek ñu jox leen paas rek ngeen euh, ah, rek la rek waaye nag di gërëm aussi ki nga xam ne moom mooy Maymouna moo jaar ci maquillage bi waaye ki nga xam ne tamit mooy sama yaay Absa Diouf madame Seck ni jabaru Pape Seck bi ma tudd léegi ki ma ñawal nee naa la ñooñu dañuy jàpp sama combat lu bari remercier di leen di remercier waa Thiès aussi sama papa sama yaay di leen wax ni kontaan naa ci ñoom baax a baax a baax lépp ñoom ay ngeen toppante rek tarkalla yàlla na yàlla defal jàmm et euh, yàlla su ma bëggee na ma bàyyi ak sama directeur Ndiaga Ndour yàlla na yàlla sàmm ko yàlla na yàlla jàpp ko yàlla yàlla taxawu ko yàlla yokk ko doole euh, ku am compréhension la bu dee dafa am lu ma wax rek juum man maa juum njaga du juum du jaawale euh, tarkal la njaga moom ku yàlla may la du yàlla yàlla defal ko jàmm su kay maa ngi lay kontaanee eh, ñu ngi lay déggee bu baax li nga sol kan moo ko ñaw luy numéro bi wii nii. noppi mbaa ma wax yow tamit ah, maam jaara Serigne Ndiol. xam naa ne ñëpp xam nañ ko muy le jeune tailleur Pape Beye. Mm-hmm. Mm-hmm. numéro mi ngi nekk 78. 634. 93 34. waaw ma ci jaaraale di nuyuwaale lamp xeer. Mm-hmm. ndax moo génne fii ci cheveux bi ah. mais nag sarbe mu Serigne Saliou moo ma posal euh, cheveux bi perruque bi moo ma ko posal defal ma ba mu baax donc mi ngi noonu may nuyuwaale sama papa sama xarit sama Serigne Samba Ndour borom Touba dëgg neexul di ziar ñëpp di bëgg ñëpp Ndey Yërim mi ngi lay nuyu lëmbalkat bu mag bi. kaan Ndey Yërim yal na yàlla nee na ma neel Aba. Ndey maa ngi koy nuyu. kenn du ma ne ko dina yegg. sama xarit boobu yal na ko yàlla defal jàmm di ñaanal ñëpp jàmm ah. du nuyu ñëpp di ziar ñëpp di biggee ñëpp. ayca su kay en man plaisir la may def di toog ci plateau ngeen may séq yéen ñaar dama bëgg ay xale yu jong ma te tarkalla sama cat ak sama catu morom xale yu jong ma. sama cat ak sama catu morom euh, ngeen jong ma lool bu dee nag dañ ci bëgg bokk ci xale yu jong ma yi yàlla yàlla defal ay ca Mérissa Mbaye mooy série sexy boy moom tamit yàlla na yàlla defal ko jàmm bu baax a baax wala ilaha illallah eh Mounas tarkalla eh, série Wili Wili Wajanga série Mounas ca arko yi la ñu xamante gisante ci arko ba nomante ci arko ah, ay waay eh, eh, waay yéen kii wax sama nopp bi mën naa bàyyi sama nopp bi Diop lépp lu jëm ci wàllu humour jëm ci wàllu culture yaa yaa yaakaar naa ne ci Dakar ne dort pas mm. da ngay dem di ko jëli di ko indi dama koy jëli et puis euh, di wax ni aussi on a des projets qui sont là ci côté humour ah yaa ngi koy annoncé léegi déjà diffusion wu Abacho bu ñu enregistré woon ba pare ci koor gi donc demain incha allah lañ koy diffuser waaye di leen jox le 12 le 19 ak le 26 rendez-vous fii tournoi bi amoon moom moo fi amaat bu ñu paree dinañ duggaat aussi ci région yi def Abacho tour bi ñu ko bi ñu ko bi ñu commencé woon. Mhm. ba defoon ci déjà trois régions dañuy continuer yeneen yi des ci région yëpp et ñu demoon aussi dañ fay demaat mu nekkaat tournée boo xam ni ci 14 régions yëpp la donc xaar leen projet yooyu et xaar leen aussi Dakar na pas lépp luy événement humour incha allah dinaa fa teg sama tànk xool nu mu demee lañ fa war a reetaan ak lañ fa war a jël comme savoir ak lu mu mënti doon. Mhm. may indi ko fii ci plateau bi incha rabbi maa ngi sant di gërëm ñëpp. moo tax ma doon wax sànq ci partenariat bi comme dañu war a mhm. le tour du Sénégal. les quatorze régions du Sénégal. Mhm. Euh, dama ciy woo dama ciy woo euh, nga xam ni euh, tarkal la mu ngi jëm ci lépp rek loo xam ni. luy defar réew mi la maanaam luy. pousser fi ndox mi war a jaar mm. liggéey mm. ak seen directeur bi di def liggéey bu am solo bëgg nañ mu gën a fës te buñ ñu fekk see sponsorisé ñu dinañ ci gën a wax moom gën a fës mm. mm-hmm. parce que fu ñu dem dañuy ànd ak courant euh, fu ñu dem dañuy utiliser courant lumière son ak yëpp le directeur de la Papa Demba bi tey di ci woo ñi nga xam ne ñoom ñooy Dakar Dem Dikk ndax yoon wi dañuy def Ousmane Sylla ak seen bus yi nga xam ni bal confort climatisé ah, bus yu neex a neex mm. ma bëgg ko wan àdduna yëpp ay bus yu bees tàq mm. mu indi ko nekk directeur boo xam ne liggéey ma bëgg mm. ñu wane def les quatorze régions du Sénégal def le tour du Sénégal wane li nga xam ne moo am ci réew mi yëpp yëpp mm. yëpp Sénégal jàmm rek lañ ci bëgg yàlla jàmm yàgg et ci biir humour bi lépp mën na ci jàmm et aussi dañuy woo ministère tourisme mm-hmm. ak woo culture mm-hmm. woo ñëpp secteur loisir mm-hmm. woo jeunesse woo secteur yi nga xamante ni yëpp ñun incha allahu rabbi suñu suñu lii ñuy def nii dina ko impacter positivement parce que bu ñu duggee defe naa ci biir réew mi. 14 mm-hmm. régions yi dinañ xool les sites touristiques dinañu wane les les les les les bienfaits wu dëkk benn bu nekk. ba la woo urbanisme parce que fu ñu dem. dañ set setal dañ koy defar dëkk bu ñu dem dañ koy set setal dañ koy defar ba mu baax. tubaarkal yàlla yàlla may la jàmm ah, ba fi ñu allah. et wax ñaata jeunes ñoo nekk ci ginnaaw SSP. ñaata mhm. ñoo nekk ci ginnaaw. Euh, observation notre corps lii dafay ñaw lii ak yeneen yu gën calme-toi Diop ku ci bëgg rek da koy daal di woo ci soixante après lu stop 88 56 mooy numéro téléphone am 721 88 56 léegi nag. li doon ñëw di kaas naan en ah, heure boo wooree ba ndogo ba pare moom yow lay ndogo. fi toll ni moom quartier libre fi toll ni moom quartier. <laughs> wili maa ngi lay kontaane Jibi maa ngi lay kontaane sexy boy <laughs> maa ngi lay déggee am di Moustapha maa ngi lay kontaane Pape Mboup maa ngi lay déggee bu baax a baax équipe bi ah. tubaarkàlla équipe bi yëpp ñu ngi fi ñu ngi leen di sant bu yóbbul ma sama micro surprise. demal yóbbul ma micro bi. demal nànk damay. dañuy tëj émission bi. barki yàlla bu ma génnee te waxuma sama yaay maa lay sant di la gërëm ak sama papa. maman Khady su ma yeggee damay am problème. ak Paleel ñu ngi leen di kontaanee bu baax sama papa ak sama yaay <laughs> maman Khady ñu ngi lay bëggee euh, suñu papa ñu ngi koy kontaanee bu baax dañuy tëj émission bi ak surprise dañuy tëj émission bi ak un phénomène dañuy tëj émission bi ak koo xam ni il est par tous les Sénégalais. dañuy tëj émission bi xam naa ni danaan der rek bu ko defee El Hadj heure bu la neexee mën ngaa dagg kontaan naa ci yéen bu baax a baax à lundi pour seetu Sénégal 16 ba 18 ak équipe bi ñu ciy ak partenaire yi ñu ciy àndal yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp neel der yaa tëj émission bi. géej gi nga nuyu naanal. waduudu. waduudu waduudu waduudu duududu wadu wadu waduudu duududu waduudu Ndeysaan Mm. ay waay ah. jërë ngeen jëf maa ngi nuyu sama baax Observation. Notre corps comprend combien de parties? L'élève Diop, calme-toi, calme-toi, Diop, calme Notre corps comprend combien de parties, Diop? nekkate Baye Fall bi muy lekk cere ji kurus gi mu takk ci baat bi moo dagg dugg ci biir cere ji Baye Fall bi lekkaale ko xam naa yooyu bëñ doom mosuma gis bëñ yu mel noonu yoo xam naa xam naa bëñ yu mën sàq mu kurus bi xam mosuma koo gis yoo xam ne loolu mu leer nañ ñoo xam naa buñ buñ buñ baxal ñëw leen jàpp ci xale baa ngi liggéey te bëgguma jël gaali aywa aywa aywa laf laf dire c'est un sa sans façon c'est un qui aime jouer euh, avec les élèves. Vous vraiment savez, vous savez il a des rumeurs qui disent que man dama soxor. devant MBP. top and You're top, top, top, top, top, Observation. Notre corps comprend combien de parties L'élève Diop, calme-toi, calme-toi, Diop, calme-toi. Notre corps comprend combien de parties, Diop J'ai appelé un autre élève. Je suis forfait. naka te Baye Fall bi muy lekk cere ji kurus gi mu takk ci baat bi moo dagg dugg ci biir cere ji Baye Fall bi lekkaale ko. xam naa yooyu bëñ doom mosuma gis bëñ yu mel noonu xam naa xam naa bëñ yu mën sàq mu kurus ñoo xam mosuma ko gis ñoo xam booy mu leer naa ñoo xam naa buñ buñ buñ baxal ñëw leen jàpp ci xale baa ngi liggéey te bëgguma jël gaal aywa aywa aywa las